bu dee ci yoonu Maalik moom dañuy tudd gën jaa néewi can dañu nangu ne moom loo joxe rek lu néew néew mu baax dañuy wax gën jaa néewam bu dee ci wurus kaaru dinaar benn dinaar ci yoon mi ngi tolloog ñeenti ngaraam ak kaaru ngaraam kon kaaru dinaar mën nañ koo xam mënees naa xam itam lu mu tollool ci CFA saa yu nekk rek buñ laajee man koy xam bu dee ci xaalis lay joxe moom gën gaa néew ñett dërëm yoon yoo xam du am rax ñett dërëm yoo xam ne xaalis bu sell lay doon dërëmu yoon nag manqué na ñetti ngaraam benn dërëm bi day doon ñaari ngaraam nga teg teg tomb dolli ci nag neuf cent soixante quinze ci ay milligrammes kon jege na ñetti ngaraam moom benn dërëmu yoon waaye nag matu ko boo bëggee nag seet bi noppal la nga far ko matal ñetti ngaraam ndax vingt cinq milligrammes moo manqué benn dërëmu yoon ñetti ngaraam saa yu nekk nag mën ngay xam kon gën jaanee yi can ndax boo laajee ñuy tëgg di xel li xaalis bu sell boobu fu benn gramme toll dañ wax ne fa la njëgum toll ci CFA mel na bu ñu nee ngi toll ci quatre cent cinquante boo ko seetee ci noonu nga xam ne jàppee nga benn dërëmu yoon bu mat ñetti gramme kon benn dërëmu yoon te bis boobee ma nga tolloog mille trois cent cinquante nga def nag mille trois cent cinquante ba muy ñetti yoon mu jox la quatre mille cinquante kon bis boobee gën jaa néewi can ma nga tolloog quatre mille cinquante maanaam juróom-ñett téeméeri xaalis CFA ak fukki dërëm bu dee nag la ñuy joxe can du wurus du xaalis kon nañ seet xaymaam maanaam bu ñu ko doon seet ci wurus ak xaalis lu muy toll lu mu néew néew na mat kon loolu nga wax ne lu gën jaa néewi can te it ni ñu ko waxee woon léegi day doon luñ mën a tudde alal ba noppi nag ni ma ko waxee woon léegi du sarti ca sarti la ñuy jaay mbaa la ñuy def njëkk te loolu mooy na laab bu mu doon sobe mbaa lu am sobe na yoon nangu ne am na njariñ nañ ko mën a jël jébbule ñu xam ko biir biti ba attee njaay yi jeex lam ne nag bu mu doon ak fayantoo day wane ne bu fekkoon ne góor gi jigéen ja moo ko gaañ ba mu war a fayu ci jigéen ja duñ mën a juboo rek ci mu bàyyi ko bañ a fayu ci moom jigéen ja te ñu jàppee bañ gaa fayu mu doon can ga mu mel ne kon moom góor gi sañ ko sañoon fayu ci jigéen ja te fayul ci moom loolu lañ jàppe rek muy can ga dañuy jàpp ne loolu moom du alal dañu jàpp ne fayantoo du alal te liñ ci teg wax xamrin waxin siirin sàngara sobe la mbaam xoox sobe la ab julit mënta moom sàngara mënta moom mbaam xoox loolu mënu su koo jaay mënu su koo def njëkk ci njaay moo tax kon sàngara mbaa mbaam xoox mbaa lu ko nuru du man can jamono yi jaam xewee bu fekkoon ne jaam ba daa daw wala ba dee suñ jamono jii lañ ko bëgg a cane réer mbaa ñu sàcc ko it loolu warar la lu wóore di la lu bu dee lu wóore di ba ëpp ëpp du nangu ko def can da sax bu xawee wóore di yem ci moom daa ñu ko nangu muy can ndax sëy moom day wàllu teralante daañu ca nangu ak wóore di goo xam ne ëpput doonte sax di su ko nangu ci jaay lam ci rekk meññet moo xam ne saña sugu koo jaay ndax tàmbaligu te ñor ba yoon nangu koo jaay meññet mel noonu yoon du nangu ko def can ci kaw nag buñ ne dañ koy def can te bàyyi ko ci garab yi ba mu ñor xomm jigéen ja door koo jël nde sax bu fekkee ne meññet ma tàmbal nañ ko mën a jariñoo doonte dañ koy xonte ak jur te ñu juboo ci bu ko defee can da koy daal di wat meññet ma fa saasay saasa waaye du ko bàyyi ci garab yi ba mu ñor te daañu ko nangu la ñu gànt koy mooy xalaat tabqiyati buñ dee sartu meññet ma tàmbali gu ta mel na mu war a mel ñu ne dañ ko ci bàyyi ca garab ya ba mu ñor xomm nag jigéen ci door koo jël loolu la ñuy bañ loo xam ne nag du alal duñ ko defee can mel ne lee nga wees woon ci fayantooga maanaam góor gi sañoon na fayu ci jigéen ja ñu ne woon du nangu rek góor gi bàyyi fayu ga bañ a fayu tam doon can ga suñ ko defee nag te yoon yëg ko te wéet amagut yoon da koy daal di tas su fekkee nag wéet am na ñu bàyyi sëy ba wér tam joxe canu kem ba noppi nag mu dellu ca jigéen ja mu fay ko diya fayantoo sax moo ci waroon waaye léegi moom tegu wéet am na dañuy wax na joxe canu kem ba noppi nag jigéen ja fay ko diya tañ bàyyi fayantoo ga te tàmbalee misaal li nga xam ne daañu ko mën a def can mooy jamono yi jaam amee góor gi am na ay jaami jaam mu juboo jigéen ci bu ko takkee jigéen jaay seet jaam yooyu bu ko ca neex mu doon canam waaye bu ne góor gi mooy seet bu ko ca neex mu jox ko ko taxtaaruhu hiya waaye lahuwa xaw naa mu sax li ñu wax ngarar ak wóora di waaye dañuy jàpp ne ndegam góor gi am na ay jaami jaam bu jigéen cee tànn bu ko ci gënal bu gën a baax lay tànn waaye bu fekkoon ne góor gi mooy tànn bu ko ca neex joxe can moom du baax ndax duñu xam ndax duñu xam day seet bu gën a baax jox ko ko wala day seet bu gën a yemaay joxe ko mu ne am na yoo xam ne bu doon ci jaay duñ ko nangu ndax day doon lu wóora di waaye nag ndegam sëy moom teralante la daañ ci nangu yi mu tudd nii bi ci njëkk mooy mu ne ko da may defaral sama néeg li wax meuble mu doon can gi su fekkee ne am na nu mu ñeen ñu koy defarale jigéen ab néegam ñu juboo ci noonu yoon dana nangu su boobaa nag bu amee anam goo xam ne moo féete kaw ci nu ñuy meubalee ab néeg ak anam goo xam ne moo féete suuf ak gu digg doomu kon dañuy wax ne kon na ko defaral néeg ba ci anam ga digg doomu muy wala al wasatu bu juboo ci tam ci mu jox ko nangami dëleem li ñuy wax ci wolof nangami weex ni ki nangami dëleem mbaa nangami nag mbaa nangami fas ñu tudd ab lim rek te waxuñu lu gëleem yi mel mbaa na fas yee mel mbaa ña nag yee mel dañuy seet rek bu dee ci gëleem ya yu digg doomu bu dee ci naya yu digg doomu bu dee ci fas ya noonu aw raqiisin ba tey noonu la bu dee jamono yi jaam amee mu juboo ci mu jox ko nangami jaam muy can gi te ràññee luñ jaam ya dañuy seet rek lim bu toll noonu ci yu digg doomu ba tey buñ juboo ci mu takk ko ci mu jox ko alal yi sëy joo xam ne dana tolloog lañ jox moroomam loolu du ko tee baax dañu seet rek kon la digg doomu ci lañ daan jox moroomam la ca digg doomu ñu àtte ca loola bu leen neexee ñu juboo ci bala koy jox can gi ñu àgg ci waxtuñ ko koy jébal mooy li ñuy wax waxtoom yu wéet ak moom baa ñu ne waxtuñ koy togg mu sëy bu fekkee xës suñu xam waxtu wa rek kon dal nay baax mën nañoo juboo ci balaa joxe can gi ñu àgg ci waxtu muy sëy te nga xam nañ waxtu muy sëy ndax waxtuñ koy jébal bu fekkee xam nañ waxtu wa bu fekkee ni jëkkër ja wóor nañ ne moom jekku na can ga daa am kay mu war a jaay te jamono yi moom mënu koo jaay fi saasa mbaa bu ko jaayee fi saasa da cay perte dañoo xam ne ni jekku na can gi rek mën nañoo juboo ci waxtu woo xam ne dana fekk loolee muy jaay jar ba mën a wala bu dee kuy liggéey di fay weer bu ne nañ ko may ba weer yu dee wala boog am na loo xam ne am na ci wàll ci waxtu sàngam lañ koy séddale mu ne nañ ma bàyyi baa jot saa wàll ci loola yooyu yëpp daañu ko nangu waaye nag bu fekkee ne dafa ñàkk amul dara dara amul dara itam lu muy séentu kon ñu di ko may soxna ci kaw bu amee rek indi du baax jamono yi jaam amee dagan nañu juboo ci jigéen ji ne ki koy bëgg a takk da may mayal diw ab jaam mel ni mu ne ko diw sama doom bi nu jaayee da ma koy mayal ab jaam mu doon àll li sëy ji loolu dagan na ba tey bu ne ko ci yooyu jamono sama bàyyi day sab jaama boo ma ko nangoo goree lal nag muy àll li sëy ji mbaa mu ne ko sama mbokk sab jaama boo ma ko goree lalee muy àll li sëy ji yooyu yëpp dagan na nga xam ne bu ko goree lalee moom jigéen ji mooy moom kilif teef ga aw xan naf si yii nag mooy mu ne ko dangay goreel ab jaam muy can gi te sax sa bopp nga koy goreelal mooy nga xam ne yow yaay moom kilif teef ga day mel ne jaam ba doon na alal jigéen ja di ak can ba noppi nag mu door koo may jëkkëram jooju mu goreelal ko boppam bu fekkee ne li ñuy def can du wurus du xaalis day jëmm ju ràññi ko rek mel ne jamono jaam xewee jaam sàngam wala bu dee suñ jamono jii nag sàngam mbaa fas sàngam nga xam ne moom daal lu ràññiku la day war kon ñu gaaw koo joxe te bañ koo jëmale dele waaye ci takk-takk mën ngaa wax ne rek su can ka doonee lu mel ni xeetu marchandise mbaa jaam mbaa xeetu mbundet wala muy suuf mbaalu tax ci suuf su fekkee ne nekkul fa ñuy mayee dafa nekk feneen bu ñu ko mënee jébbale balaa yàgg rek nga xam ne moom daañu ko jébbale jigéen jot ci mbaa kilifaam jot ci ci jër boo xam ne ak fab koom xaju fa rek mu daal di baax waaye buñ ko àppalee ab bu sori boo xam ne ci li cëpp moom li mel noonu daana fi di soppiku kon sëy ba du baax ndax su fekkee la ñu def can ñi la mel nga xam ne du wurustu xaalis dama nga teew ca barab boobee mbaa nga dëkk boobee day war ko ñu daal di koy jébbal jigéen ji mbaa ñu jébbal ko kilifa jigéen ji ci bis boobee nga xam ne ca la ñuy defee pas-pas bu mooy ca la ñuy mayee waaye nag bu ñu sartee ca boobee ñu koy mayee ne duñ ko gaaw a joxe dañ koy yéexe kon gannaaw ba bu jigéen di nangu woon tam du ko tax a baax ndax sart lañu sart ca jamono yi maye gane loolee ñu waroon a teewal dañ koy yeexe duñ ko joxe fa saasa te bu fekkee sax sart ñu woon yeexe ga te jigéen ji ci boppam nangu yeexe ga moom di su ko bañ waaye nag buñ xasee sart yeexe ga ca bañ ñu maye tóor ñu ko woon a sart loolaa koy yàq aw xàll wala mu ay nag day bu fekkee can nga dañoo juboo ci dañ koy joxe fa saasa xam ne ku lu ñu jëme dele kon ba tey jigéen ji sañ na koo laaj ne nañ ma ko jox suñ ko waree jox can gi nag mu teew ndaa waxtu waxoon daal ak si na ci lañ ko ko war a jox joxuñu ko ko bu ko neexee mu ne jëkkër ji duma nangu nga joteeg man li feek joxoo ma can gi su fekkee wéet amutoon man ko ne duma nangu nga wéet ak man te joxoo ma can gi su fekkee jotoon naa wéet ak moom it mën na ko ne li feek joxoo ma kon duma nangu nga jotewaat ak man bu bëggee ànd ak moom tukki it mën na ko ne li feek joxoo ma duma nangu lu ànd tukki bu ñu nee jigéen ji can gi nga xamee ne si jëkka dala ko war a jox bu la neexee ne li fekk joxuma ko du ma nangu mu wéet ak man daa gannaaw ba wéete yow bu la neexee ne li fekk joxuma ko du ma nangu mu jotewaat ak man dara la ne gannaaw bi mu amee sañ-sañ boobu bu yombalee jëkkër jë mu joteeg moom ba mu joteeg moom mbaa sax jotewut ak moom waaye yombalal na ko bopp ba noppi gannaaw ba kon du mën a gàntu nag di waxati naa bala moo jotee teeg man damaa jox can gi moom daal ba mu ko sañee na taxaw temm ci aaye boppam ba mu jox ko dama ko war a jox can ga waaye nag ba mu amee sañ-sañu ne nañ ma jox mbaaru joteeg man sàggan na ba yombalal boppam jëkkër joojee mu joteeg moom moo xam jote naa ak moom moo xam jotewut ak moom yooyu jamono du sañ a aayati boppam jëkkër ja doonte joxu ko can googee waaye nag bu fekkee jëkkër ji da koo joxoon can goo xam ne daa am ku ca taq ci yoon wax ne maa ko moom ba yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom doon ci sax jëkkër ji wóoru ko ca maanaam ba mu koy jox loolee can teyu ko woon da koo doon noonu rek mbaa mu jëndoon ko def ne moo ko moom joxe ko can gannaaw ba am ku ca taq ci yoon ba yoon ne ko yaa ko moom mu daal di koy jëlee ci loxol jigéen ja kon jigéen ji sañ naa aaye jëkkëram boppam ba ba mu koy jox lu wet ci can gi ñu nangoo ci loxoom mu ne bu fekkee ne jëkkër ji kàllafe na maanaam doon na kàllaf soxna si itam mënees naa joteeg moom kon ki jëkkër ji joxe la mu war a joxe ci àll bi sëy ja sàkk nag ñu jébbal ko soxnaam kon ñu forcé soxna sa ne ko doo sañ a bañ waaye nag xool sart bi wax mooy jëkkër ji kàllafe na soxna si itam mënees naa joteeg moom pare bu fekkee ne soxna si dafa laaj can ga mu war a laaj wax ne na ma jox can gi mën nangu nag ñu jébbal ma ko te góor ga am na ko mën na ko te niñ ko waxee moom góor gi kàllafu la soxna si itam mënees naa joteeg moom kon yooyu jamono jëkkër ji la ñuy forcé ci mu daal di joxe can ga ndax soxna si taxaw na ci wàllam ku taxaw ci wàllam rek ñu forcé ka ca des moom it ci mu taxaw ci wàllam bu fekkee nag jëkkër ji kàllafiwut kon duñ forcé soxna si ci ne ko faaw nga bàyyi ko mu joteeg yow bu fekkee ne itam moom soxna si ci boppam moo ndawe lool ba polis te joteeg moom ba tey duñ forcé jëkkër ji ci ne ko faaw nga joxe can gi ci saafe saafa ndax ndegam soxna si mënis te joteeg moom bu ñu nee nag jëkkër ji def na li mu war a def te soxna si wares na ko mën a jébbali ndax mënees naa joteeg moom bañ na kon waa loolu la ñuy def du soxna sa ne nañ ma bàyyi nag ma waaj rek ndax waaj mënu ci ñàkk kon ñu seet diir boo xam ne biñ ko ko mayee waaj xaj na fa lu may nag daa fekk jëkkër ja waat ne faaw daañu ma ko jébbal ma jotee moom ci guddi tey tey tey moom xos na bu jëkkër ji xosee waat loolu moom te mënees naa jébbale jigéen ja kon faaw rek ñu jébbal ko ko ndax bañ ngi ñoom loolee tebbi ko bu fekkee nag bi jëkkër ji ne nañ ma jébbal sama soxna ndax def naa li ma war a def soxna si nañ ma muñal waaye tax mën nañ ma muñal weesu rek toll ci gis baax mbaa gis dërët aussi moom du tee ñu jébbale ko bu soxna si laajee can gam war a laaj niñ ko waxe woon na itam li fekk joxuma can gi ma war a jox du ma nangu mu jotee man dara ñu ne jëkkër ji jox ko can gi mu ne wax dëgg yàlla bañ ma ko waaye daa ko amut mu ne kon bu fekkee jigéen ji gëm na ne li wax dëgg la ba am na ay seere yu wóor yu seere ne li wax dëgg la kon dañuy jekki-jekki rek wax àttikër bu ne ko appal ko diir boo xam ne dana fi mën a góorgóorlu ba xam dana am can géem déet donte sax yaakaaruñ ne mën na ko fi am itam du tee rek moom na ko appal ba saasay saasa li wax ni nag mooy bi soxna si laajee alali sëy bi jëkkër ji ne bañu ko waaye daa ko amut soxna si daa gëmul ne ñàkk amatee mu joxe ko te moom ci bopp mu amul ay seere yu ko seereel ne ñàkk gi mu wax dëgg la boobu yoon moom attekat da koy may lu toll ne yàggaayu ñetti ay bis ndax mu saxal ne ca dëgg-dëgg ñàkkatee ma joxe alali sëy bi su ma nee saxal ñàkkam googu ci diirub ñetti ay bis yi mbaa ba ñetti ay bis yi door a mat rek fi saasa saxal na ne moom ñàkk rek te mu joxe alali sëy yi na ko àttekat bi seetal biir boo xam ne da ko koy may muy dele mu góorgóorlu ba xam dana mën a am alali sëy jëm déet doon ci sax yaakaaruñ ne may gi dele dana am njëriñ ndax gisuñu ko benn pexe mbaa benn man ma nit dutee rek moom na àttekat bi seet dele boo xam ne da ko koy may bàyyi ko mu góorgóorlu ba xam dana mën a am alali sëy jëm déet su dele ba jeexee nag te mënta am alali sëy ji soxna si tam mënu koo muñal nee na kon na àttekat bi fase soxna si te bu fekkee jëkkër ji jotoon a wéet ak moom dana war a joxe genn wàllu can nga fase ci njëkk wéet ku ko def war a joxe genn wàllu can moom nag dañ koy mën a tuumaal ne dafa làq alal di mën naa joxe can kon nag bu àttikat bi fase itam du tee ñu fayloo ko genn wàllu can ngir bu ko amut it ñu topp ko rek boobu mu koy am loolu nag wóote naag bu fekkoon ne jëkkër ji mbaa soxna si da ci am ku amee sikk soo xam ne sa moroom sañ naa génn ci sëy ba ngir sikk soosee kon ku ci wax ne man génn naa ci sëy bi ba yoon tàggale leen ndegam rek wéet amut duñu wax jëkkër ji ne ko faaw nga joxe genn wàllu sëy ndax loolu moom sikk see waral tàggoo gi day def léeg-léeg góor gi war a joxe alali sëy ju mat léeg-léeg mu war a joxe genn wàllu alali sëy ja léeg-léeg itam du war a joxe dara ci nga xamee ni ci la ko can ngay wàcce moom jëkkër ji du war a joxe dara li nga weesu ci la bokk mooy kenn ci ñoom ñaar ami sikk si tax kam ko seqal mën a génn ci sëy ba kook génn ci sëy ba te wéet amut benn ngoog boo xam ne jëkkër bi dara du ko ca war ci xeetu can li ñuy wax itam ni kaaxu tafwid sëy joyal te mooy lu may rek te waxuñu nu alali sëy day toll su fekkee ni jëkkër ji daa fase te fekk wéet amagut kenn du ko joxeloo genn wàllu can naka noonu bu faatu woon it te fekkutoon mu wax na alali sëy joy toll dara du ko ca war jàppal ne kon li ñuy wax ni kaaxu tafwid sëy joyal te mooy ñu may rek bañ a wax alali sëy ja su jëkkër ja faatoo mbaa mu fase te jotu ko woon a waxal dara ci nu alali sëy joy toll jigéen ji du am dara ci can xëy na du ñu fàtte ne bu jëkkër ji fase rek noonu te jotu ci wéet ak soxna sa waaye moo fase ci coobareem dana war a joxe genn wàllu can ga bu fekkoon ne nag yoon a seet ba tas sëy ba te wéet amut kon moom kenn du ko joxe loo genn wàllu can fi mu war a joxe can gu mat sëkk nag bu dee can gu ñu waxoon ba juboo ca moom lay joxe bu fekkee waxuñu woon genn mu joxe canu kem mooy can ka jaadu mooy yett yi mu wax benn ba mooy jot naa joteeg kañu ko may doon ca sax ba muy joteeg moom doon aay woon na ko jote ga ni ki daa fekk jigéen ji toll ci dereti régal mbaa dereti wasin mbaa fekk jigéen ji toll ci armal aj mbaa xumra te yëyu ko wut aay woon nañ ko jote ga waaye ndegam mayoon nañ ko ko mu joteeg moom ci yooyu jamono faaw rek mu joxe can gu mat benn nga ñu waxante woon fekki waxuñu woon genn mu joxe canu kenn ñaareel bi mooy jigéen ji togg nañ ko mu sëyi mu sax ci kër jëkkëram lu toll ne atum lëm doonte xam nañ ne jëkkër ji jote wut ak moom dara te moom ci boppam mënees naa joteeg moom jëkkër ji itam kàlle fa woon na waaye taxul na jëkkër ji joteeg moom dara dañuy jàpp ne sax gam fa sax atum lëm moom mook mu joteeg moom ñoo bokk taw jëkkër ji joxe kenn gu mat sëkk di ko ñetteel nag mooy kenn ci ñoom ñaar faatu ñu xasee may nit soxna bu ñu jotewul dara itam bu ca kenn faatoo dañuy jàpp ne al mawtu kat du xooli mooy faatu kenn ci ñoom ñaar mook ñu jot a wéet la ñu yemale waaye ci sartu nag fekkan ñu waxan na àlali sëy ji war a toll bu góor ga faatoo te fekkutoon ñu waxal jigéen ji lu mu koy jox ci àlali sëy kon can du ca war doon nag moom faw mu am waaye da nga waxuñu woon nu can ngay toll jigéen ja du am ak can ndax bu fekkoon ni jëkkër ja waxoon na nu can ngay toll nag moom door a faatu kon jigéen ji day boole donn ak ñu jox ko can googe ñu ko waxaloon loolu moo tax ñu naa li gën a wóor mooy fu ñu mayee jigéen rek tudd na àlali sëy jay toll ndax bu fekkee tudd ñu ko ba jëkkër ja faatu te jotewutoo nag moom dara kon dana doon waaye kenn du ko jox kenn bu fekkoon nag ñu tudd na can ngay toll moom day boole can ga ak dono ba mu ne kuñ may soxna moom njëkkee wéet ak moom wéet goo xam ne jote xaj na fa ku ne am nag dal ci sa moroom su fekkee ne wéet googu am na ñoo ko waxal seen bopp wala sax na ci seere doon ci sax ñaari jigéen moo seere ne wéet googu amoon na bu soxna sa ne ba ñu wéetee boobe day jote woon naag man bu ko góor ga bëggee weddi doon ci sax waa ju baax la xamuñu ko ciy caaxaan te tee bu soxna si waatee ne boobe ñu wéetee daal jote woon naag man doonte sax booba daa toll ci wurus te joteeg moom ndax daa toll ci gis baax wala mu toll ci armal ak mbaaxum rëy du tey rek ñu gëm la mu wax ba tey mu doon mag ak mu doon gone ak mu doon gor ak mu doon jégéen ñoo ci yemoo bu demee noonu daal bu nee ba ñu weetee jote woon naa man te waat boole ca ñu gëm lu mu wax mu war koo jox can gu mat bu ragalee waat nag moom jigéen ji ñu ne jëkkër ja waatal weddi miim li mu wax ndegam jigéen ji ragal naa waat te jëkkër ji moom waat na noonee kon su ko fasee ñu ne ko genn wàllu can rek nga ko ameel ndax dangaa fase kon ci njëkk ngay wéet ak moom su ragalee waat nag ni jigéen da ragalee waat nag ñu ne ko fay ko lépp can gi mooy kon ñu moomal dëgg ga soxna sa jëkkër ji war koo jox can ga lépp lépp su fekkee ne biñ mayee jigéen ji jëkkër moom jëkkër ji da ca am ku fekki moroom ma am ku wax ne jote nañ te boobee kenn ka weddi ko mu ne loolu day am nag teqale bu fekkee ne jigéen ji moo dem fekki góor ga li ci ëpp góor ga day sawar ci joteeg moom ndax jigéen jee ko fekk si kon bu jigéen jënee baa ko fekkee jote naa ak man baa demee këram fekk ko ci barabam jote naa ak man mbirum la mu wax su jëkkër ja bëggee weddi ne jotewuma ak moom it la nga xamoon daal mooy koo xam ne may nañ la soxna soxna su ñëw fekk si la muy yàgg moom rek nga xam ne moom moo la fekk si li ci ëpp da nga joteeg moom bu soxna sa ne jote naa ak man ca boobu rek ñu jàpp ne wax na dëgg safaan ba nag mooy jëkkër ji ci boppam dem fekki soxna sañ ko may ci kër gam nekk nga xam ne tey góor gee fekk si jigéen ji li ci ëpp di jekki-jekki sawar ci joteeg moom te néewuñu ko ñu jébbal la ko kon nag bu ne jotiwu maa moom dara kat dama ñëwee seet si ko itam jotiwu maa moom bu soxna sa ne jot naa ak man itam li wax ne jotiwu maa moom moom la ñuy mën a jàpp waaye nag kum ci mën doon day waat boole ca jotoon naa tudd sarti can mu bëgg a wax nag bu sarti yi xëtee luy àtte ba mën ngaa njëkk a jàpp ne rek sëy boo xam ne la ko tee baax mooy can nga ci boppam mu awutu yoon wala pas-pas ba sax mu awutu yoon waaye ñàkk nga aw yoon ci pas-pas ba day feeñ itam ca can nga yooyu yaar ñoo bokk àtte sëy mel noonu su fekkee ne yëg nañ ko te wéet amagut dañ koy tas wa yoon da koy dindi ci lu war su fekkee nag wéet xas na am ñu bàyyi sëy ba muy dañ joxe canu kenn sadaqul misle bii mu jëkk wax nag nga xam ne can ga daa manqué lañ ne woon waru koo yées moom daa amee atti boppam suñu ko léegee dañuy wax jëkkër ja ne ko mottali ko da nga wéet amagut bu la neexee mottali sëy bii bu la neexee itam nga bañ a mottali yoon tas sëy bi waaye nag bu yoon tas sëy bi li nga joxe woon ci can dam yées gën ngaa néew can dañ koy xaaj jox jigéen ji benn xaaj ba delloo la benn xaaj bi su fekkoon ne nag xas na wéet ak moom ba àggal yoon day waral ci moom mu mottali can ga ba mat gën gaa néewi can ndax wéet ga mu wéet ak moom buñ ko ne nag faawa nga joxe sadaqul misli waaye dañ koy wax ne ko dal gën gaa néewi can moom da nga wéet am na faawa rek nga joxe ko dañu koo tasee nag fasxun bi talaaq lay doon dañ ciy tuddaale tase gor bu fekkee la mu def can day loo xam ne ab julit sañu koo moom mel ne sàngara wala mu njëglaw jigéen ja jox ko ko mu ne ab jaam la te fekk na gor la lu mel nii buñ ko yëgee te wéet amagut yoon day dindi sëy ba mu deñ bu wéet xasee am nag ñu bàyyi sëy ba yéey te mu joxe sadaqul misli canu kem bu soxna sa nekkoon ci diine yoxoot mbaa nasaraan itam du tax ab julit ba koy takk man koo cane lu mel ne sàngara bu ko defee rek dugg na ci àtte bi ñu wax bu ko teelee yëg te wéet amut ñu dindi ko bu ñu ko yeexee yëg nag ba wéet ak moom ñu wax ko mu joxe canu kem boobu mooy ñetteel bi buñ ko dee may soxna mu sart ne dañuy wàcc can gi nga xam ne daal dañuy wax ne du ma joxe genn genn can kon du baax buñ ko teelee yëg te wéet amagut dañ koy tas su fekkee nag wéet am na mu joxe canu kem dañ ne woon can day nekk alal lu mel ne mu amul sañ-sañu fayu ca jigéen ja ab gaañu gaañu mbaalu ko nuru mu bëgg a bàyyi nag bañ a fayu te bañ ngaa fayu doon can ga dañ koo aaye woon buñ ko defee nag ñu seet buñ ko teelee yëg te wéetuñu ñu dindi ko bu xasee am nag ñu bàyyi te jëkkër ji joxe canuk kem su boobaa jëkkër ja mën naa dellu ci jigéen ja mu fay ko diir mooy lam ko gaañoon bam sañoon a fayu ca moom waaye nag ndegam sëy bi am na du sañ a fayooti ca moom diir rek la koy laaj loolu mooy juróomeel bi bu fekkee lam ko cane day loo xam ne mënu ko yëkkati jébbale mel ne day ak jur ñu sàcc ko mbaa soxna si ne ko da nga may jëndal kër diw ga muy can gi te xamuñu jë moomee sax dana nangoo jaay këramam déet ak bu ko dee jaay dana ko jafeel ba jëkkër ji mooy ki bëgg a takk soxna bu ko mën a jënd lu mel nii bu ko yoon teelee yëpp te wéet amut mu tas sëy ba bu wéet ko si am nag ñu bàyyi sëy ba wéy itam joxe canu kenn loolu mooy juróom benneel bi kenn gam koy jox dañu leen lenn li moom day teew ba sàkkal nañ ko àpp boo xam ne bu ñu xam la la ca des nag ñu jëmale ko àpp boo xam ne kenn xamu ko mel ne bu demee ba kenn ci ñu nar faatu rek dañ koy door a joxe wala bu demee ba tàggoo baa bu demee ba jiw ma tukki woon ñibbi si te xamuñu ko ne ñibbi si nga xam ne lenn can ga moom dañ koy teewal mbaa jëme nañ ko àpp boo xam ne bu ñu xam a xam la waaye nag da ca am loo xam ne dañ koy jëme ci àpp bu kenn xamut maye gu mel nii du baax buñ ko yëgee te wéet amagut ñu dindi sëy ba su wéet xasi am ba noppi nag dañuy seet can ga waxante woon ak canu kem lu ci ëpp lu ci ëpp rek moom la ñuy jox jigéen ja mel na ñu ne saa yu ko jekkoo rek indi ko waaye duñ ko sàkkal benn benn délai boo waxul benn délai te fekkul tam ci aada am délai bu ñu xam boo xam ne ci lañ koy joxe may ga du baax buñ ko teelee yëpp te wéet amut ñu tas sëy ba buñ demee bu wéet yëguñu ko nag sëy ba may dañ joxe canu kem te dindi nag ñàkk ñàkkoon a leeral délai ba ñàkkee leeral délai bi nag ibnu xaasit nee na bu fekkee ne ne ko mata si itti saa yu la soobee rek ma jox la can gi mbaa mu ne ko saa yoo ko sàkko rek mu jox la ko te fekk moom mi wax loolu kat ku jekk topp la xam nañ ne am na ko bu wér nee na kon loola baax na ba tey bu ñu tuddoon can ga di waxuñu ne dañ koy joxe fi saasa ñëwuñu day jëm dele sàngam dañuy jàpp ne buñ mayee itam mu baax dañ jàpp ne rek loo joxe lay doon fas saasay saasa bu ñu nee balaa joxe can gi mu dem ba am juróom fukki at loolu daa bari ba daanaka dañuy jàpp ne mook wàcc nañ ko can gi rek nee nañ ko doo joxe can rek la ñuy yemale suñu waxee loolu yoon yëg ko te wéet amut jotewuñ dara ñu tas sëy ba suñu wéetee nag mu bàyyi sëy ba yooyu mu joxe canu kem ba nopp nag dindi délai boobu ñu wax am na ñu ne noonu ñu waxee daa mel ne kon ba ñu jëmalee léppi can nga juróom fukki at lay aay waaye bu fekkoon ne lañ cay teew nat na gën jaa ñëw can dal nay baax nga xam ne kon can nga lépp jëm ci délai bu sore noonu mbaa am na lu ñu teew can nga waaye nag mëtul sax gën jaa ñëw can li fa des jëm juróom fukki at loolaa koy yàq waaye saa yoo xam ne rek teewal nañu ci can lu mat gën jaa ñëw can lañ jëmalee délai bu yàgg noonu du yàqatee benn tomba ngoog bu ne lim koy cane day jëmm ju ràññi ko joo xam ne fam nekk dafa sori lool lool lim ne diggante xorasaan ak andalus xorasaan ma ngay foofu ca Irak Irak ci gox boobu andalus nag foofu ci Espagne yooyu jamono dox diggante gu sori yëmbutoon dañ daan sart nag kon fañ ne fa la can nga nekk ak fi ñuy fase sëy bi bañ a sori sori waaye bu jéggi dayoo mel ni bii mu tudd kooku moom lañ wax ni mooy can moo xam gisoon nañ ko moo xam dañoo wax rek na mel waaye nii la soree du baax li koy tee baax nee nañu mooy day am lool ak wóora di ndax ndegam noonu la soree bala ñoo dem ba àgg ca mën na fee soppiku lool mbaa sax bu dee luy sànku sànku yooyu jamono moom jóge ci barab dem ci barab dafa yombi wutoon nii mu yombe mel na ne kon lu mel ni bu ko doon attiwaat léegi ci jamono jii moom daañu ko seetaat ndax daanaka ni jamonoy doxee adduna sépp benn barab la fenn sureetut su fekkoon ne nag can nga fa mu nekk ak fi ñu fase sëy bi dafa dibdoomu rek mel na ci yooyu jamono diggante Misra ak Madina kon bu jëkkër ji sortul ne damay wéet ak moom kat balaa jot ci can gi bu sortul loolu rek kon dana baax waaye nag bu sartee ne day wéet ak moom njëkk mu jot ci loolee ñu koy cane buñ ko teelee yëg te wéet amut ñu dindi sëy ba bu wéet ko ci am nag ñu bàyyi sëy ba wéy itam joxe canu kenn bu nga xam ne itam fa can nga nekk dafa digg doomu rek ci soriwaay dañ cee sart fekkoon nag jëmmi can nga ñu gisoon ko bu wér ba xam na mel mbaa ñu melal ko melal goo xam ne guñ mën a ràññeel la waaye bu ci loolu amutam du baax li may nag mooy suuf suuf moom dañuy jàpp ne doo wuta soppi ko ndegam nag tudd na àtteb la ñuy cane bu dee lu ràññi ko te sori lool bopp ak bu digg doomoo benn rek la taayee wax mooy bu fekkee fa nekk dafa jege mel ne doxub juróomi fan rek ci yooyu jamono mbaa lu ko yées kon moom du ca wàññi dara moo xam jëkkër ji sart na ne day wéetu soxna si balaa jot ca loolee ñu koy cane wala déet waaye day fekk nag loolee ñu koy cane ñu xamoon ko ci gis bu wér a wér mbaa ñu wax na mel waxi woo xam ne wuñ mën a ràññeel la loolu lu ca mën a ñàkk sëy yi nga xam ne dañu ne baaxut ne buñ ko teelee te wéet amagut dañ ko dindi su wéet amee nag ñu bàyyi sëy ba wéy te jëkkër ji joxe canu kem la ne bi yoon tasee sëy boobu te wéet amut moom can nga daa war a dellu ca jëkkër ja waaye ndegam nag xës na aw bu noppi jigéen ji mënatu koo delloo na delloo xaymay can nga kon xayma ja lay delloo su fekkoon ne nag wéet naa moom nga xam ne góor gi war na koo jox canu kem jutee rek mu war ko delloo xaymay can gu jëkk ga su fekkee ne nag delloo jëmmi can googa ñëwagut da koy daal di delloo rek dañu ne loolu nag mooy àtte sëy ba nga xam ne la ko tee baax dafa dellu ca can ga mbaa boog bu delloo ca fas ga itam dana jeexital ca can ga su fekkoon ne la yàq sëy ba jëmmi pas-pas baa te amut genn jeexital gu ñàkk gaa baax di feeñ ca can ga nit rek kooka armal aj ñu may ko soxna lu mel noonu soxna sa mooy daal di gaarante can ga dañ faseer ci saasa la soxna sa daal di gàddu gaarante can ga moo xam jot na koo jël moo xam jotu koo jël bokk na ci tomb yooyu mu cane ko loo xam ne dañ koo nangoo ci jàmbur ci doole rek mbaa la ñu sàcc bu ñu bokki xam ñoom ñaar ne lii ñu def can dañ koo sàcc mbaa dañ koo nangoo ci nit ci doole rek maye ga du baax buñ ko yëgee te wéet amagut ñu tas sëy ba ñu xasee wéet nag ñu bàyyi rek te góor ga joxe canub kenn la ahaduhuma nag mooy kenn ki xam na waaye kenn ka xamut dagam kenn ki xamul ne li ñu def can dañ koo sàcc rek mbaa ñu ko nangoo ci doole kon sëy ba kenn du ko tas benn yoon waaye nag xam nga ne loolu ñu def can moom war naa dellu ca borom su boobaa dañuy seet loolee bu dee li ñuy natt mbaa peese mbaa wàññi jëkkër ji jox soxna si lu toll noonee muy can nga bu dee loo xam nag kenn du ko natt kenn du ko peese kenn du ko wàññi lu ñuy xayma la woon mel ne am xar mbaa aw nag mbaa beneen alal boo xam ne daal bu ñuy xayma la kon nañ seet mu xaymay loola war a toll moom la góor ngay jox jigéen ja muy can ga dañuy bañ can ga ñu boole koog lu mel ne jaay mbaa société mbaa xeeti jëflante yi ci des ñu boole leen ci benn benn contrat ci benn benn jubóonte ndax dañuy wax ne sëy moom da di ak teralante te lu mel ne jaay jënd moom ak muusante la ku ne bëgg nax sa moroom mbaa boog daal bëgg a yóbbu njariñ la bàyyi sa moroom moo tax nag kon buñ boole can nga ak jaay mbaa lu ko nuru buñ ko teelee yëg te wéet amut ñu tas sëy ba bu fekkee ne nag jot nañoo wéet ñu bàyyi sëy ba wéy te ñu joxe canu kenn mel ne góor gi jaay jigéen ci nga xam ne moom la bëgg a takk soxna kër goo xam ne njëggam ko koy jaayee day yées la waroon a jar mel na xam ne ni kër gi war naa jar million nangam bu jubóog jigéen bi jaay ko ko ci million rek nag xam ne million bi moom day féete ci wàllu njaay gi li kër gi ëpp xayma million nag féete ci wàllu can ga kon dañoo boole foofu jaay ak can loolu misaal la ci ak yu bare bari yu ko nuru bu wéet googu amee nag ba ñu ne sëy ba day wéy te ñu joxe canuk kem kon kër ga jëflante woon moom baa bu dee leneen luy àtte ba luy àtte ba mooy dañu bàyyi jaay ga yéey te ñu seet rek xaymay kër ga baa bu dee leneen ñu seet daal na xayma ca tollu rek soxna si moom kër ga te jox xayma ja jëkkëram joojee doonte sax amul luy teen mën a delloo jëmmi kër ga baa bu dee leneen ndax amul lu koy rawal tutee rek xayma ja la jigéen joo joxe ñu bàyyi njaay ma noona daañu caxi sax ci mel noonu di wax naa waaw jaay gu ñu ne daa yàqu amul li tey ñu mën a delloo jëmm ja boroom tekkiwul yoon ne deesul delloo jëmm ja xayma ja la ñuy joxe daañu koy caxe fekk na lii lañ ci jublu nga seetlu foofu ne nee nañu kat li ñuy bañ ci boole can ak jaay bu dee ci nikaaxu tasmiyati muy seet bi ñu tudde tolluwaay can ka lay aay lañ koy wax waaye bu fekkoon ne te nikaaxu tafwid ba moom manees na ko jar su kilifa ga mayee jigéen ja ak góor ne ko dama la ko may mayut ni mayee ab rajo mbaa montor nga xam ne ak mayee dëgg dëgg la bu mayeeg sëy jëmm ji laa la may loolu buñ ko teelee yëg te wéet amut dañu koy dindi mu deñ su wéet xasee am nag ñu wax kooko mu joxe canu can daañ ci boole nag bu fekkoon ne ak taalibe daa jekki-jekki fab doomam mbaa kenn ku yilif joxe ko addiya sëriñ boobu ñu ko jox addiya na sàkk ay seere ñu fas sëy ba lu néew néew mu joxe ci gën jaa néew can bu demoon nag ba yéet ak moom ci noonu rek mooy ni ñu ko fa joxe addiya yoon du ko dindi waaye day wax ne kon na joxe sadaqul misli canu kem bu fekkoon ne nag jigéen ji ci boppam moo maye boppam nga xam ne tey kilifa mayewul jigéen ji jigéen ji ci boppam moo maye boppam kon sëy la bu amul kilifa moom dañ koy dindi faaw faaw moo xam wét am na moo xam wét amut jigéen sañatu maye boppam doonte sax day wax ak kooka kan gu wér a wér kon nag rawante lu mel ni mu jekki-jekki maye boppam ci lu dul dara dara dara ci nga toll nga xam ne kilifa jigéen ji daa yëkkati jëmm ji maye wax ne jëmm ji la maye dañu wax ne su wéet amut ñu dindi ko su wéet amee jëkkër ji joxe genn wàllu can daa am ñu wax ne moom dañ koy dindi faaw moo xam wéet am na moo xam wéet amut moom moom mi taalif nag mu bëgg a dëgëral li mu la wax léegi ci bu wéet xasee am moom dañuy bàyyi sëy ba yéy te di koy joxe canu kenn albaaji mu di wax loolu dañ koy tas faw moo xam wéet am na moo xam wéet amut te njaaloo lañ koy jàppe jëtan leen ñoom ñaar te bu ca doom juddoo itam dañ ko jàppee doomi yoon bii moom daa bokk ci yoo xam ne faw yoon dindi ko mooy lañ wax ne mooy doon can nga bu ko jigéen joy moom rek sëy ba daal di deñ ko misaale nag dama lay jaam amee sa jaam bu góor boo ko doon may soxna ba noppi nag wax soxna sa ne ko sama jaam bii nga xam ne moom laa lay may ngay soxnaam moom laay def muy can gi xam nga dañ ne woon buumu sëy ak buumu njaam mënuñoo bokk tase nga xam ne ba ñu fas àggal rek soxna si moom jëkkëram jooju di jaam sëy ba daal di tas su fekkee ni yët amagut moom dañuy tas sëy ba rek nga daal di jeex amul luñ cey wax waaye nag bu fekkoon ne jaam boobee ñu takkal jigéen jooje ba noppi def ko muy ak canam daa xam su wéet ak jigéen joojee day jàpp ne jigéen ji moo ko moom rek muy jaamam bu góor da koy moom bu wér a wér muy ak moomeelam rek muy buumuk njaam buumuk sëy ga dañ ñu fàttalee foofu ne jigéen bu amee jaam bu góor du mën a woo jaam bu góor ba muy jotee ak moom ni góor a jigéen di jotee góor kay lañu ne su amee jaam bu jigéen man di jotee ak moom ni muy jotee soxnaam ñu koy tudde ak taara waaye jigéen moom bu moomee jaam bu góor it moom ka rek lay doon ko bëgg su ko bëggee def jëkkër da koy goreel ba mu nekk gor mu takk ko nag mu doon soxnaam nikaaxu sixaar moom lu siiw la ci téere yi waaye nag day def ñetti xaaj sariixu sixaar wajaxu sixaar ak murakkabu sixaar sariixu sixaar ak yëri sixaar mooy sixaar bu nekk xëppati mooy rek kee may soxna kee kee itam may ko soxna te di su ci tudd genn can mooy kenn du joxe dara dara mel na rek nga may soog jigéen kenn soxna moom itam bu may la ab jigéenam soxna waaye doo joxe can moom itam du joxe can loolu moo tudd sariixu sixaar su fekkoon ne nag kenn ku ne daañu la joxeel can la ca am kay mooy bu lee ëmut lee du am waaye moom kenn ku ci ne li mu ko misaali fii sa morom da lay jox téeméeri dinaar nga jox ko téeméeri dinaar sëy bi door a am foofu kon ñaar ñëpp lañ tuddal can kooku moo tudd wàccu siwaar suñu waxalee kenn ka can bàyyi ko ca des nag loolu moo tudd mu rakkabu siwaar mu wax nag seeni àtte bu ñu nee can du ci am faw yoon da koy tas bu ñu demoon sax bañ ne kenn ki moom daañu ko joxeel can kenn ki duñ ko joxeel can muy lu ñu wax mu rakkabu siwaar añ ne moom de su ko joxee can faaw yoon koy dindi moo xam wéet am na moo xam wéet amut ba ñu ne bu waxalul kenn can faaw yoon da koy dindi moo xam wéet am na moo xam wéet amut léegi bu fekkee ne kenn ka waxaluñ ko can kooku moom faaw yoon da koy dindi moo xam wéet am na moo xam wéet amut kooku la ne su fekkee ne wéet xas na am moom faaw ñu war a joxe canu kem mooy diggante bu ñu wéetee ak moom faaw rek ñu war koo jox canu kem canu kem daa waxoon ne wet fu siraar nga xam ne ñaar ñëpp ku ci ne waxal nañ la can la ca am kay mooy bu lee amul rek lee du am loolaa ko yàq bu wér xasee am dañuy bàyyi sëy ba yëy ñu seet nag canu kem ak can nga ñu waxante woon lu ci ëpp rek ñu jox ko jigéen ja da ca teg nag ñaari masala benn ba mooy can nga dafa am lu araam ak lu araamut mbaa can nga am luñ ca jëme àpp boo xam ne kenn xamu ko yooyu yaar bu fekkee ne wiit xas na am dañuy seet can dañ waxante woon la ca baax ku ko tolleeg canu kem lu ci ëpp lu ëpp ci yooyu yaar rek moom la ñuy jox jigéen ja mel na biñ ne dañ koy jox téeméeri dinaar ak sàngara sàngara sa moom kenn du ko tuddaale daal dañuy seet rek téeméeri dinaar ya moom canu kem lu ci ëpp moom la ñuy jox jigéen ja ba tey biñ ne woon dañ koy cane téeméer boo xam ne day teew ak téeméer boo xam ne buñ demee ba kenn ci ñaar faatu mbaa fase am rek dañ koy door a joxe loolu mooy ab bu bon bi buñ ko séewee dañuy bàyyi sëy ba ñëy ñu seet nag ba xam ab téeméer bu teew ci téeméer dinaar yi ñu waxoon moo canok jam lu ci ëpp lu ci ëpp rek moom la ñuy jox jigéen ja lim ne wala zaada ak donte ëppoon na moom sadaqul misli alal jami yi ci lépp mooy day wane ne lu ëpp ci yooyu yaar moom la ñuy joxe bu fekkoon ne nag canok kem nga soo boolee la araam ak la dagan ak lañ àpp àpp bu jaaduwuti du tey canok kem gi ëpp leen canok kem ka rek la ñuy jox jigéen ja nit ñu seet can gam ko waxaloon la ca baax ak la ca baaxut lépp toll ci ñaari téeméer ñu seet nag canu kem moom doon ñaari téeméeri dinaar ak juróom fukk ko it day joxe ñaari téeméeri dinaar ak juróom fukk ndax moo ëpp maanaam buñ nee dañuy seet sadaaxul misli canu kem ak lañ ko tuddaloon lu ci ëpp rek ñu jox ko ko fekk nag can gañ ko waxaloon am ca luñ jëmale àpp boo xam ne yoon nangu na ko ak luñ jëmale àpp boo xam ne yoon nangu ko maanaam sax ñu boole ca ak lu araam mel ni sàngara mu ne dañ sàkkal dele boo xam ne yoon nangu na ko moom daañu ko seetaale waaye la nga xam ne yoon da ko araamal mel ni sàngara kenn du ko seetaale lañ jëmale àpp boo xam ne itam kenn xamu ko kenn du ko seetaale mel ne bu fekkoon ne can kañ waxante woon daa amoon téeméeri dinaar yoo xam ne day teew ak yeneen téeméer yoo xam ne dañ ko jëmale ci bu at mi deexee ak beneen téeméer boo xam ne dañu ne bis bu ñu tàggoo mbaa kenn ci mu faatu rek dañ koy joxe kon ñetti téeméer la yoo xam ne ñaar ñi moom baax na ndax bee dañ koy teewal be dañ koo sàkkal àpp bu yoon nangu mel ne bu at mi deexee kon dañu wàññi rek ñaar téeméer yooyu dañu wàññiwaale téeméer bi nga xam dañ ko jëmale ci àpp bu kenn xamul suñu ne woon yooyu jamono canu kem day ñaari téeméer yi diinaar la kon yemoon naag la baax ja lañ waxante woon su boobaa kon dañu jox jigéen ja téeméer boo xam ne day teew ak téeméer boo xam ne moom bu at mi deexee lañ ko ko war a jox su fekkoon ne can nga yaa rekk ca nekk lu ñu ne dañ koy joxe mu teew ak lu ñu sàkkal délai boo xam ne kenn xamu ko kon loolu nga xam ne dañ ko sàkkal délai bu ñu xamut moom rek lañu wacc seet nag la teew rek lañ lañ koy joxe tam teew lu mu def ak canu kem dañoo wutee ci can nga doon loo xam ne jigéen da da koy jariñoo rek waaye nekkul jënd alal jure leen ñame mu jox ko kër goo xam ne da cee dëkk lu tolloog juróomi at muy can nga xam nga kon loolu njëriñul kër la wala mu ne da koy jox oto boo xam ne ci lay dox ay soxlaam lu tolloog diir sàngam mu doon can gi mbaa wisaabu Amérique mbaa wisaabu feneen moom la koy wutal muy can gi mbaa da koy jàngal alquran moo xam dañ koo takk ci nangami saar mbaa nangami sip lu toll nangam daal la koy jàngal ci alquran ba mën ko muy can gi mbaa da ko yóbbu mu aji mu can gi lu mel noonu nga xam jëm njëriñ la nekkul jëmi alal ju ne léegi gis nga fii la tàmbalee fii la yam dañ caa wuute waaye wax ji gën a wóor mooy buñ fasee sëy ba ci noonu kenn du ko tas dañuy bàyyi sëy ba yii duñu ko tas nag waaye ni waa Mali waxe moom song def ko moom taamu wuñu ko bëgguñu kenn song dal di koy def waaye nag buñ ko defee ba noppi ñu mu wax rek ñu bàyyi ko ca atib kenn duñu wax ni kaafu taxu yëbb ko tudd wala sëyub joyal dagan na mooy ñu may nit soxna xam nañ ne moom tudd ñu can waaye faw dana ci war a joxe can waaye nag may nañ ko noonu rek te waxuñu lu can nga war a toll ñoom it dañuy dem ci diw lu wax rek mooy doon can gi ne loolu dagan na daañu wax nag buñ ko jëflantee noonu luy àtte ba bu ñu nee dañ koy may soxna ci kaw nag alali sëy ji moom bu demee ba ci diw rek mooy wax lu mu ne rek moom la war a doon ñu xam ne loola la can ngay doon mel na ñu ne dañuy dem ci baayam bu ndaw mbaa dañuy dem ci sëriñu baayam lu wax ne rek mooy doon can gi mooy doon can ga loolu mooy nikaaxu taxkiim nikaaxu taxkiim dagan ni nga xam ne moom la nikaaxu tafu yëbb dagane nikaaxu tafu yëbb nga xam ne ñoo maye rek te wax ñu woon can bu ñu ne jëkkër ji ci gannaaw ba faaw nag nga waxal ko li ñuy jox ay moroomam bu ko neexee wax lu yées lañ daan jox ay moroomam waaye su boobaa itam soxna su bu ko neexee nangu bu ko neexee gàntu waaye nag bu jëkkër ji ne woon danaa ko jox li ñuy jox ay moroomam kon jigéen ji muy soxna sañ may moom bu sañ a bañ ndax kuñ defal dañuy defal say moroom daal di wàcc jëkkër ji ñu may moom bu waxee lu yées la ñuy jox ay moroomam ñu wax ko wax dolli dolli mu bañ te soxna sa nangu kon dañ ko wax ne ko faseel sëy bi dañ su boobaa du tax nag dara war ko ca bu ko dee waxal lu yées dañuy jox ay moroomam te ñu ne sañ na ko lu néew néew na àgg ci gën jaa néewi can ndax da nga ne woon dañoo tolloole gën jaa néewi can ci nangam ne bu mu ko yées kon nag la ñuy wax lu néew néew na àgg ca loola bu ne woon soxna sa naa la jox nangam ñu seet mu yées gën gaa néew can bu soxna sa nangoo itam du baax ndax soxna si sañuta nangu lu yées gën gaa néewi can ni kaaxoot taxkiim nag moom ñu ne dañu wax jiw ne ko yaay seet can gi loo wax rek mooy doon can gi bu ñu waxee can ga jëkkër jaay seet bu ko neexee nangu bu ko neexee gàntu buñ ko ne woon sax yow mi ñu jëkkër ji yaay seet loo ne rek mooy doon can gi mooy doon can gi lu tax ñu ne ko faaw nga warlul ko lu toll ni li ñuy warlul ay moroomam maanaam àlli sëy yi faaw nga tollul ko ni moroom yi toll li àlli sëy bu ko neexee wax lu yées loola nikaaxu taxkiim boobu nag bu fekkoon ne jëkkër ja daa wéete moom ba àggal ndax dañuy waral ci moom ne ko faaw nga jox ko nag lu tolloog li ñuy jox ay moroomam am dañuy wax ne kay kañ ne woon mooy seet lu muy toll rek mooy seet lu muy toll ba tey doon ci sax jëkkër ji daa faatu mbaa jigéen ji faatu mbaa jëkkër ji fase itam kañ ne woon mooy seet na can gi toll rek mooy seet lu wax muy loola mel ne kon lépp ga jëkkër ji wéet ak soxna sa itam du tax ñu ne ko yow miy wax ni can gi war a toll faaw rek nga wax lu tolloog ba ñuy cane ay moroom suñu laa wax lu ko yées day mel ne kon ci niñ waxee sañ naa wax lu yées dañuy jox moroomi jigéen ji doonte sax jëkkër ji wéet naa ak moom bu ñu demoon nag ba nga xam ne ka war a wax ni can gi war a toll muy almuhakkam mënus ta xam lu muy wax mel ne dafa faatu wala dafa dem dem bu sori boo xam ne mën ñu ko jot te xamuñu ba xam dana deuxième déet su boobaa kon da nga doggu ci ne ndegam jëkkër ji wéet naa ak soxna si na ko jox canu kenn maanaam can nga jaadu ci moroomam bu fekkoon ne nag dañoo fa sëy ba noonu te wax ñu woon can ngay toll bu jëkkër ji wéeteeg soxna sax te fekkutoon mu waxal ko ba can ngay toll moom lu néew néew mu waxal ko canu kenn ndax wéet gee tax jote gi mu joteeg moom moo tax faaw canu kenn moom mënu koo manqué bu waxee lu ko ëpp kay mu war ko waaye bu waxee lu ko yées yoon ne ko faaw nga dem ba ci canu kenn ndax xas nga wéet ak moom xas nga joteeg moom ni kaafu taxu yëbb bi muy sëyit joyel moom daa am li ci mat xam loo xam ne moo ko jagoo mooy bu fekkee ne jëkkër ja àggutoon ci wax soxna sa ne ko nangam laa lay jox can muy alal sëy ba jigéen ja nangu li fekk loolu amut bu kenn nit ñoom ñaar faatu woon it doon ga dana am waaye jigéen ja du am dara ci can su fekkoon ne it góor ga daa fase ci yooyu jamono kenn du ko joxeloo genn wàllu can bu fekkoon ne nag góor gi àggoon na ci ne ko nangam kat laa lay jox alal sëy te jigéen ja nangu boole ci kon bu faatu amee jigéen ja boole alali sëy muy can ak dono ba bu ko jëkkër ja fase woon tam te wéetut ak moom dana ko war a jox genn wàllu can gam ko tuddaloon dañ bokk juboo ca bu jëkkër ja waxan kañ ko may ci sëy boobu nga tuddee ni kaaxu tafwid jëkkër ja waxal ko lu yées la ñuy jox ay moroomam yëguñu nag fu jigéen ja nangoo loolee ko jëkkër ja wax far jëkkër ja faatu mbaa mu pase jigéen ja daal di wax ne loolee mu moo xaloon te mëtul li ñuy jox saay moroom kat nangu woon naa ko kon nag ndegam faatu na war nañ ma koo jox bu ko fase itam mu ne kon kat ndegam fase na ma war na maa jox genn wàllu loolee loolu la wax ne bu fekkee amul ay seere mu wax ko rek noonu ci làmmiñam te amul seen seere de su ko déglu waaw rek bu ñu wóoroon ne nag waxaloon na ko can gu jaaru ci moroomam laata faatu yi am ba pase donte moom nangu wutoon tam moom jigéen ji du tey war koo jox loola ndax dañ ne woon sëy bi mel nii bu jëkkër ji waxee lu jaadu ci moroomam jigéen ji jigéen ja du sañ a bañ looloo tax nag kon bu ñu wóoree ne jëkkër ji waxan na lu jaadu ci ku mel ne moom rek muy sadaqul misli bu faatu amee mbaa fase itam du tey du tey ñu war a jox jigéen de loolee jigéen joo xam ne mën naa dem ak boppam ndax rafetu mën a yor àll mag lu ci aju sañ naa nangu lu yées la ñu kene ay moroomam te kilifaam gu góor du ko sañ wax ne ko faaw nga laaj li sa moroom yi laaj bàyyi moom dañuy jàpp ne lu baax rek lay bëggal doom bu jigéenam ba su ko dee maye laajal ko lu yées la ñu jox ay moroomam it ñu ne ko sañ nga ko ndax jàpp ne ne moom maslaam rek lu baax rek la koy defal xëy na daa bëgg rek ci mu koy may seet ni mu ko ko yombalale ba toppatoo ko bu baax a baax jamono yi jaam am na itam ku am jaam bu jigéen boo ko dee maye saña laaj ci can lu yées la nga xam ne moom la ñuy jox ku demee ni moom ndax ndegam moom moom moom jaam bi moom sax àll see jën cee joxe kon mën naa laaj lu yées canut ton moo xam nag wéet am na moo xam wéet amut loolu jublu ci wala baax da du xooli bu fekkee ne jigéen ji doo baayam du jamono yi ak njaam nga moom ko dañ laa dénk rek jigéen ji nga yore ngir war koo toppatoo boo ko dee may jëkkër te jotu wuta wéetu jëkkër ja moom mën ngaa wàññil jëkkër ja can nga ndax rek bëgg mu toppatoo ko bu baax a baax waaye nag xam la xoo ji te wane ne laa baax doxoo bu ñu dénk jigéen bu ko mayee ba jëkkër ja wéet ak moom du sañ a wàññi analyse ja ndax dañ jàpp ne moom daa war a seet rek maslaam jigéen jooyu ñu ko dénk te ndegam wéet am na ba noppi wàññi alalam moom muruwul maslaa muruwul seet maslaa lu njëkk nag ñu wéet ak moom mën naa wàññi alali sëy ja ko ñu may soxna ni kaaxu tafu yëdd maanaam sëy boo xam ne waxuñu ne can ngay toll jurtu wax nag lu muy joxe ci can ba far tawat tawati faatu door a tudd nag na can ngay toll loola bu ko sañ daa waroon wax laata muy tawat waaye bu xasee tawat tawati faatu moom bu sañ a tuddee ci can bu tuddee can nag ñu bàyyi ba mu génn àdduna ñee doon buñ nangoo wéyal loola ñu jox jigéen ja can googeem wax waaye nag ñee doon sañ nañoo gantu ndax moom dénkaan ni suuf bàyyi ko sa doom mbaa sa soxna mu ko joxal nangam ci alal ñooye moom bu ko doona ya nangoo wéyal mu wéy bu ñu ko nanguwuta wéyal du wéy ki ñu may soxna ci tudduñu alal li sëy mu dem ba tawat nag tawati faatu door a waxal kookee ñu ko mayoon nu alal jee toll la wax nag ëpp canu kem bu ko sëy wéet ak moom moom canu kem du ca mën a ñàkk mooy faaw ñu génn ci alalam sadaaxul misli jox kookee mu takkoon lu mu ëpp canu kem ñooy doon ñooy seet buñ ko wéyalee mu wéy buñ ko wéyalut du wéy ki ñu may soxna te waxuñu alali sëy nu muy toll mu dem ba tawat tawati faatu wax ni nangam laa koy jox ci alali sëy li nga wax léegi mooy bu fekkee ne wërul ca tawat joojee bu faroon wër nag ca tawat joojee moom la mu ko waxaloon ci alali sëy rek moo koy daal di war du ko sañ a bañ dangaa dëgg lu bare bari ñuy tudd kenn kem sadaqul misli ba mahrul misli fu ñu ko tuddee rek nag dañuy seet jigéen joojee ci anam yi ñuy bëgg a tudd seet nag góor gi nga xam ne moom la ko seqal moom itam daañu ko seet ci wet jàppal ne bu fekkee ne jigéen ja jullit la am na juróom-benn yoo xam ne daañu ko ca seet mu juróom-benn yoo xam ne yëpp tasi ca mën naa bari lool bi ñu dee seet kenn kemam ba daanaka rek bari ba gën a yéeme bu jigéen ja manqué benn ba yëpp benn ci juróom-benn yooyu nag ba tey kenn kem nga daal di wàññi ko bu fekkee nag amul benn benn juróom-benn yi moom kon mënees na ne gën ngaa ñëwee can rek doy na ca kon bu dee jullit moom jigéen ja daa nga seet ak diin te jublu ci ak taday yunu maanaam ndax ku rafet diine la am ko sagu aar boppam di moytu lépp lu aay te di sàmm alalam ak alali jëkkëram buñ ko xamee ci lu mel noonu daañ ca seet du can nga war a toll muy benn muy ak taday yunu ñaareel bi mooy su amee alal almaalu ñetteel bi mooy bu amee ab taar moo xam day taar ci bitti moo xam day taar ci biir mel ne jikko ju rafet bu ñett ñeenteel muy alxasab li ñu waxoon léegi lu ñu demoo ci wàlluk ay baay mel ne ay baay mel ne na xam ci ak tabe xam-xam lewet njàmbaar wala baaxoo falu yooyu ak an nasabu askan dañu seet askan woo bokk ak nag al balad ab dëkk mbaa réew nga xam nga barab yi ak dëkk yi day tax mbir yi wuute kon jigéen dañuy wax bu fekkee jullit la te boole juróom benn yi nga wax yépp ak tadayun al maal al jamaal al hasab al nasab al balad ndee seet ca lu kenn moom mën naa bari lool bu dee nag jullit dafa doon rek yéefar buñ fasante loolu de ñu koy wax dimmiya yett rek la ñuy seet ci moom al maal al jamaal al balad dëggam du jullit la mën a bari kenn kemam mbaa mën koo néewal mooy seet kenn ci yett yi alal daar ak barab ba mbëkk mbaa fu mu féete ndax bool na yett yi wala am na lu mu ci ñàkk te tax mu ne nag maay roxabu bii misluhoo ku mel ne góor googu fii xaa ci jigéen ja dañuy seetaale góor gi ci boppam ci buñ dee seet kenn kenn ndax jëmmi góor ga mu doon ko am xam-xam mbaa ku am jikko ju rafet mbaa ku bokk ci ñu baax mbaa muy mbokk loolu lépp dana feeñ ca can ga góor gi sax man naa bañ am alal ci tax ñu koy taamu waaye nag doon gum doon mbokk mbaa baax muy xam ci moom mbaa xam-xam ak lu demee noonu da cay feeñ su fekkee ne sëy ba wér na moom dañuy seet rek bés ba ñu fasee sëy ba ndegam sëy ba wér na moom dañuy seet rek bés ba ñu fasee sëy ba li tax ñu koy takk ci noonu mooy yooyu ñu la wax daa mën a soppiku mel ne bés ba ñu koy maye taar bee nga wax ma nga woon ca moom dañuy seet na mbir mi lu mel accident dal ko ba mu ñàkk taar boobee wala fekkoon maam alal bi ñuy seet mbir mi di ko atte nii fekk mu ñàkk alal ja mu nekkoon nag ndegam sëy bu baax na moom dañuy seet rek lu mu demee woon moom jigéen ji ca kër bañ koy mayee ndegam may gu wér la bu dee nag day sëy bu baaxut nga xam ne kon ci jote ga moo tax can war ca kon bés bañ jotee ak moom rek la ñuy seet lu mu demee woon ci wàllu rafet diineeg alal ak taar ak yee nga wax yëpp moom it xam nga daa mën a soppiku rek ndax nit mën naa mel neen te ëllëg rek mu soppiku mel neneen kon nag nga takk ne bu sëy ba wéree dañuy seet tolluwaayu jigéen ja bis bañ fasee sëy ba la ñuy seet bu fekkee ne sëy ba baaxut waaye wéet da am ba can war ca tey ne can kem lay doon ñu seet bis bañ jotee ak moom ku jaabalee jigéen ak soxnaam ci misaal mbaa mu jaawale ko jaam bu jigéenam ci bi jaam amee ba joteeg moom dana ko war a jox sadaqul misli kenn kenn buñ dee seet nag li kenn nga war a toll dañuy seet bis ba mu joteeg moom ci kaw jaawale mu jigéen ja demee woon ci yéen wax bu góor jaawalee jigéen ba joteeg moom xam ne moom tëyu ko jigéen ja itam tëyu ko su fekkee daa joteeg moom benn yoon rek genn kenn la koy jox muy kenn kenn doo dégg léegi sadaqul misli du nga dégg léegi bu fekkee daa joteeg moom ay yoon yoon nag léeg-léeg can nga day limu ne yoon ya toll léeg-léeg itam ñu ne benn can lay joxe bi muy joxe benn can nag te fekk mu jotee moom ay yoon yoon mooy rek yoon yi mu jotee moom yëpp soxnaam dong la ko jaawaleel moo xam daa jotee moom ay yoon yoon defoo ne soxnaam si tudd Mariam la ci yoon yëpp ndaa boog daa am yoon bu jotee moom ci daawale defe ne soxnaam si tudd Mariam ak beneen boo xam ne daa jàpp ne ka tudd Mbeena ak beneen yoon bu mu jàppoon ne soxnaam si tudd xëree ndegam rek moom yoon yi jotee moom yëpp soxna ko jàppe woon li yoon ñu limu limu du tee benn can lay joxe su fekkoon nag ci ba jaam amee da koo jaawale joteeg moom jàpp ne soxnaama dellu joteeg moom jàpp ne ab taaraama ab jaamu bu jigéen li mu jotee nu mu toll rek can ya toll noona su fekkee ne moom góor gi moo ko tey njaaloo jigéen ja waaye jigéen ja moom teyu ko li ci daroo nelaw rek mbaa muy xam góor gi ñëw joteeg moom di góor gi moom moo ko tey jaaloo dëgg la def kooku moom bu jotee moom ay yoon yoon mu limub yoon la toll rek limub can ya muy joxe war toll noonu jotee moom yaari yoon jox ko canuk kenn yaari yoon bu jotee moom yetti yoon ci njaaloo gi war koo jox yetti can ba tey bu fekkee ni jigéen ca yëg na jote gi waaye dañ ko caa forcé dama dañ ko caa forcé ba tey da jotee moom mu limub jote ya toll rek noonu la limub can yooyu toll nga seetlu ni ñu waxee jigéen ja bi ñu ko jaawalee ba jotee moom taxalu ca dara mbaa ñu forcé ko dañ koy war a jox can waaye bu fekkee ne jote gañ jotee ko moom xam na ko te moo ko tey da ko neex kon dafa njaaloo dañ ko war a gitul lañ koy def waaye kenn du ko jox benn can kon soo bëggoon a takk ndigg soos da ngay wax ne góor gi jigéen ji buñ bokkee yëpp jote gañ jotee ne lu aay la xam ne kon dañoo njaaloo jigéen ja kenn du ko jox genn can dañ ko war a gétan dañuy jottali góor ga kooku mooy benn xaaj bi bi des nag mooy góor gi ci boppam moo tey jote bu aay ba waaye jigéen ja moom teyu ko kon moom góor gi daa njaaloo ñu war koo jotan ba noppi nag mu war a joxe can ga ñetteel ba mooy jigéen ja ca boppam moo tey jote bu aay ba waaye góor ga moom teyu ko bu ko jigéen ja teyee te góor ga teyu ko jigéen ja moo njaaloo ñu war koo jotal ba noppi nag kenn du ko jox can bi ci mujj nag mooy ñoom day ñoom ñaar ñëpp kenn teyu ko ca su boobaa kenn du ci am bakkaar duñ ca jotan kenn waaye nag du tee góor ga jox can jigéen joojee nga seetlu ne jote bu aay bii ñuy wax yépp danaa léeg-léeg can war ca léeg-léeg can du ca war léeg-léeg jotan am léeg-léeg jotan du am bu bopp sowukaay ba duggee rek jote boobu am na duñu sart léppi sowukaay ba dugg duñu sart itam mu àgg ci génne ndoxum maneyu nga dellu takkaat ne saa yoo xam ne jigéen ci teyu ko ci góor gi moo ko tey nga xam ne daa njaaloog moom mu yooni jote ga toll rek ca li war a toll noonu bu góor ga fasee dañ ko may te wéet amut jotewu teg moom dara can nga buñ ko defee ñaari xaaj benn ba soxna saa ko moom benn ba nag mu moom ko moom jëkkër ji fase nga xam ne bu fekkee joxe woon na ko it dañ koy delloo genn wàll ga ak nag loo xam ne gannaaw buñ mayee ba noppi lañ seet ne can gi daal léegi wax tuuti na ñu ne ko nañ ko ca dolli ngir yokk ko ci can ga dañ ca dolli ngir yokkee ko can ga gannaaw buñ mayee ba noppi bu góor ga fasee soxna sa te wéet amut ba tey loolu daañu ko def ñaari xaaj benn ba dellu ci jëkkër ji benn ba soxna sa moom ko loo xam ne kado la ki ñu may soxna rek moo ko joxe woon moo xam dañ koo sartoon moo xam sartuñu ko woon su fekkee ba nga koy joxe booba mayaguñ ko soxna mbaa ca waxtu ñu ko koy may rek la ko joxe woon moo xam soxna si ci boppam la ko joxoon mbaa ku mel ne kilifaam ne ki bàjjen mbaa nijaay mbaa jëmmi kilifa koy maye sax waaye moom daal ci njëkk maye la wala ci fan doon maye la su góor ko fasee te wéet amagut kado boobu bu joxe woon dañ koy def ñaari xaaj benn ba moo ko moom benn ba nag dellu ca soxna sa wala bu fekkee dañ ko joxoon kilifaam wala ku mel ne bàjjanam wala ku mel ne nijaayam genn wàll ga dellu ca kookee liñ ci teg nag ne wala xaa ñel na soxna si ak zuha jàpp kado ba ñu ca kilifaam googee mbaa ku mel ne moom daa bëgg a wax ne bu fekkee ne kii ñu may soxna ba muy joxee kado ba mayaguñu ko soxna wala ca dañ ko doon mayee la kam ko jox itam du soxna si day kilifaam ci misaal mbaa nijaayam mbaa ku mel ne kooku ba yoon ne bu góor gi fasee te wéet amut day jëlaat genn wàllu loolee mu joxe woon kado bu dee ci kilifa gaa na ko kilifa ga jox genn wàll ga bu dee bàjjan na ko bàjjan bu dee loo genn wàll ga mu ne nag jigéen ji nga xam ne moom lañ may woon nga xam ne moo waral lépp lépp moo waral kado bi te jox ñu koon xanaa jox ko kilifaam googee wala ko demee ne moom ni ki nijaay mbaa bàjjan bu jëkkër ji jëlaatee genn wàllam genn wàll ga des moom soxna si mën na koo laaj ka ko yoroon moo xam kilifaam gi ko maye la moo xam nijaayam la moo xam kooko day bàjjanam mbaalu ko ndoo góor gi gannaaw bañ ko mayee soxna ba noppi bu ko coobare woo jël kado jox ko kilifa ga nga xam ne moo mayee soxna si mbaa mu jox ko ku mel ne nijaayam nijaayu jigéen ji wala bàjjanam dagam gannaaw maye gala moom kookee ñu ko jox rek moo koy féetewoo moo ko moom te soxna si du ko ko mën a laajaat maanaam jigéen ji maye woon du mën a laaj kilifaam googee mbaa bàjjanam boobee ci misaal mbaa nijaayam joojee na ko jox ma kado bi ñu la joxoon ci gannaaw biñ fasee sëy bi day leeral ne gannaaw bañ ko mayee soxna ba noppi moom jëkkër ji nga xam ne kon lu mu bëggoon am na ko kado buñ joxewaat moo xam da moo xam da koo jox soxna sañ ko may moo xam da koo jox kilifaam nga ko mayee wala keneen bu société wéet amut it du tax mu sañ caa jëlaat dara ko joxee soxna sa wax ji gën a wër mooy soxna saa ko moom boo joxee kilifaam ba keneen it ca dëgg-dëgg kookaa ko moom fu jëmm ja nekkee lu way ndam yëfut du tax mu sañ caa laaj dara mu ne lu may nag laata muy wéet ak soxna sa yoon daa seet sëy ba ne baaxut dal li koy tas moom te wéet amut kon kado bu mu joxe woon ci gannaaw bañ ko ko mayee loo ci xam ne rawagut mën na koo jël waaye loo ci xam ne raw na itam moom jeex na du ko sañ a fayu wala boog ñu aadaal foofa ku ñu may soxna bala ngaa wéet ak moom faaw nga joxe kado sàngam xam loolu aadala foofa bu ñu nee ku ñu may soxna bala ngaa wéet ak moom faaw nga joxe kado sàngam moom def nga ñu def loolee aada day tax mu mel ne can ga nga xam ne kon bu faseete wéet amut nañ koy delloo genn wàllu can ga noonu lañ koy delloo ba tey genn wàllu kado boobu bu ñu nee lañ aadal foofu daal ku ñu may soxna bala ngaa wéet ak moom dangay joxe kado sàngam mu ne waaw bu amee jëkkër jugantu woon ne man duma ko joxe ndax yoon da koy àtte ne ko mënoo ko ñàkk def ngir seet ne aadala ju ñu xam foofa am yoon du ko ci àtte ji ci dog naa ko faaw nga def ko foofu moom xawlaani ña wax ne nag ndegam dañ ko aadaal foofa kuñ may soxna bala ngaa wéet ak moom joxe kado boobu ndegam aadal la foofa rek ku ko gàntu yoon àtte ne la def ko mënta ñàkk ñu wax loolu ñoo wax ne kon nag bu fasee ci njëkk wéet nañ koy joxe genn wàllu can ga noonu lañ koy joxe itam genn wàllu kado boobu can ga jëkkër ji joxe woon bu fekkee ne dafa laatu waaye nag am na ay seere yu seere ne dogal ba rek la wala boog amul ay seere waaye day loo xam ñëxuta jublañee maanaam ñëxuta làq rek di lay naa nangam ak nangam lu mel nii su jëkkër ja fasee njëkk wéet di am ba nga xam dañ ne moo war a moom genn wàllu can nga soxna sa moom genn wàll ga can gi laatoo noonu ñoom ñëpp dañuy bokk ñàkk kenn du ca wax sa moroom dara ndegam daal can gi moom la ca xew ay seere seere na ko ne dogalu yàlla mbaa boog amul seere yu mel noonu waaye day loo xam ne néexuta njublan kenn bu jëkkër ja fase njëkk wéet di am ba ñu ne soxna saa moom genn wàll ga moom jëkkër ji mu moom genn wàll ga ca des ñu war ko ko delloo lii xew ca ñoom ñëpp dañu bokk rek ñàkk xam ne dogal baax bu tan nga doonee loo xam ne mënees na ca njublan kon bu amul ay seere yu seere ne yàllaa ci ñëwagub dogalam te mu nekkoon ci loxoom rek moom la ñuy fayloo maanaam moo war a fay ka ca des genn wàllam bu jëkkër ji fasee njëkk wéet ba ñu ne can ga dañ ko war a delloo genn wàll ga te fekk soxna si jëndoon ca ay yérey néeg kon yérey néeg yooyee moom la ñu war a séddale def ko ñaari xaaj benn bi jëkkër ji benn bi soxna sa waaye kenn ci ñoom ñaar du mën a dogu ne lim ba mu joxe woon ci xaalis moom la ñuy war a séddoo jëmmi la mu ci jënd rek mu nekk am yàpp nekk yérey jigéen rek loolu la ñuy séddale ñaari xaaj ba jigéen jee jotee can nga muy alali sëy ja bu fekkee la mu ci jënd yëlloowut ak yérey néeg mbaa dara ki dafaa jënd aw nag mbaa fas mbaa oto mbaa leneen waaye nag ci jëkkëram la ko jëndee daa fekk jëkkëram di jaay rek mu jënde ko ci moom bu ko jëkkër ja fasee noonu te wéet amagut ñu war a séddoo waa can nga kon jëmmi loolee mu jëndoon ba tey moom la ñuy séddoo bu ñu nee jigéen ji lam jënd ca alali can nga bu fekkee bokkut ak yére jigéen ni ki aw nag yi nga wax mbaa oto bu dee jëkkëram la ko jënde moom jëmmi loola la ñuy séddoo ndegam jëkkër ji fasee na njëkk wéet daa am ñu ne bu fekkee la tax mu jënd ko ci jëkkëram mooy bëgg lu gën a yomb kon la ñuy wax ne bu ko jëkkër ja fasee njëkk wéet lañ seddoo jëmmi loola waaye bu fekkoon ne jënd gam ko jënd ca moom du ngir bëgg ak yombal mbaa dara kon ñoom ñaar ku ci wax ne jëmmi xaalis bañ joxe woon kat lañuy seddoo waaye dul seddoo lii ku toxloo ci ñoom ñaar rek ñu fekk si kooka kon man ngaa takk foofu ne jigéen ji bañ ko joxee alal li sëy ja bu ci jëndee loo xam ne jëmul ci yéree néeg ni ki li nga waxoon aw nag mbaa oto bu fekkee jëndiwu ko ci jëkkëram moom maasa nañ ci ne moog jëkkëram ku ca wax ne du séddoo oto bi mbaa nag yi dañuy séddoo kay xaalis ba nam toll woon ku ci wax loolu rek moom la ñuy fekk si ngir gàttal mën nga ne jigéen ji bañ ko joxee alali sëy ja mu jënd ca loo xam ne demul ci yére néeg mbaa dara ni ki aw nag mbaa oto su fekkee kam ko jënde ca moom du jëkkëram jëkkër ji fase ko nag te wéet amut ñu war a séddoo alali sëy ja dañu wax ne kon jëmmi la mu jënd moom rek la ñuy séddoo ñoom ñaar ku ca wax ne dañuy séddoo xaalis ba rek na mu toll woon ku ci wax loolu rek ñu fekk si ko su fekkee ne nag loolee da ko jëndee ci jëkkëram ci boppam. am na ñu ne kon jëmmi loola faaw moom la ñuy séddoo moom mu jëndoon yére yi nekk ñoo yemoo am ñu ne dañuy seet ba xam su fekkee jënd gam ko jëndee woon te moom bëgg lu yomb rek a taxoon kon jëmm ja dañuy séddoo waaye bu fekkee ne bëgg lu gën a yomb taxutoon xaalis ba la ñuy séddoo. maanaam na xaalis ba tollu woon ci cosaan la ñuy séddoo duñ séddoo jëmmi loolee mu jënd gannaaw bu ñu waxee can nga bu fekkee am na lu ñu wax ba dolli ko ca nga xam ne loola ci can nga la bokk waaye nag dañ ko ci dolli daa fekk ñu mayee ba àggal loolee ñu ca dolli day bu fekkee ne jëkkër ji faatu na mbaa ñu koy susér te fekkutoon jigéen ji jot ca loolee dañ koy wàcce jëkkër ji du ko joxeeti bu fekkoon ne nag jigéen ji ci boppam moo faatu te tee ñu war a joxe loolee mu bokk ci àllam dañuy miraas waaye ndegam nag loola dañ ko yokk ci can ga ci gannaaw bañ mayee te jigéen ja jotu koo jël ba far jëkkër ja faatu daal jigéen ja day ñàkk loola kenn du ko joxati loola ndax day mel ne lu ñu maye woon koo ko sàggan ci jël ko rek ba gàllankoor am bu fekkoon ne it jëkkër ji faatuwut dafa fase ba tey kon dañ koy boole can ga xaaj ko ci digg ba kenn ku ne amuk xaaj nga xool li mu ne xablal xabli ci njëkk ngëb ga bu fekkoon ne laata jëkkër jee faatu fekkoon na soxna si jël ndolleen loolee kon di daal di bokk ca can ga rek jigéen ji biñ ko joxee àlli sëy ja te mu wurus mbaa xaalis te jotuguta sëy yi mbaa nga ni jotuguta wéet ak jëkkëram kon alal jooju ñu ko jox da caa war a wut yére jigéen yére yu yàlloog néegub sëy dikkal na ko barab booba aada woo defee waaye nag du ko jël rek daal di koy faye bor mbaa mu di ko tàmbalee yaxantu mbaa lu mel noonu buñ ko joxee àll li sëy ji daal moom jigéen ji te jotagut a wéet ak jëkkëram mbaa nga ne jotagut a sëy te liñ ko jox wurus la mbaa xaalis war na caa wut lu yàlloog néegub sëy waaye du ko fab rek daal di koy fay ay bor mbaa def ko ci ay soxlay boppam lu may nag àll li sëy ja bari na te lam ci jëmale ci boppam amul solo te it daa fekk nag mu loru ca mbaa lam ca faye ci bor bariwut loolu kon du wàññi dara soxna si di sëyi bu bàyyam ne nangam lii day maa ko ko abaloon bokkul ci alali sëy ji mbaa keneen ci doomi aadama yi rek wax ne lii maa ko moom bokkul ci alalam moom jigéen ji moom jigéen ja weddi ko ne sama alal la mbaa jëkkëram ji nga xam ne moo joxe woon alali sëy ja ne ci li ma joxe woon la bokk mu nekkoon bàyyi rek lañu seetlu ba xam daañu nangu ay waxamam ndéet waaye ka wax loolu bu doon yaayam mbaa maamam mbaa keneen moom duñu déglu loola waaye bu dee baayam nag bu ci ñett sart yi dajee ñu gëm la mu wax ne ko wax nga dëgg yaa ko moom da nga ko ko abaloon ba ci njëkk mooy bi jigéen ji wéeteeg jëkkëram ak léegi mbaa nga ne ba mu séyeeg léegi ëppagul at ñu ngi ci at mi rek ëppagul at ñaareel bi mooy jigéen jooju doon gone nga xam ne baayam sañoon na koo forcé moo yore woon ay mbiram mbaa boog bu dee jéegit day jéeg boo xam ne moom baay bi moo yore woon ay mbiram ni ki mu nekkoon ku nitoo digu ñetteel ba mooy la mu ne moo ko moom ci alali doomam jooju boo ko génnee teg fee la fa des tam dana yelloog la jëkkër joxe woon ñu ne mooy alali sëy ja ni ki la wax ni moo ko abal doomam buñ ko génnee teg fee la fa des ci xayma dana mat téeméeri junni te jëkkër ja téeméeri junni la joxe woon bu ci ñett saat ci dajee daal la baay ba wax ni moo ko moom ci alali doomam jooju di sëy mbaa mu nekk ci néegu sëy ñu nangu ne wax na dëgg moom baay bi su xasee demee nii moom bu doom ja ne woon ni sama baay wax demewul itam du tee rek na baayam waxee la ñuy jàpp bu amee at nag baay bi door di wax naa lii kat daa ko abaloon sama doom ji ba muy sëy rek waaye moomu ko maa ko moom ñu seet bu fekkee ne ba mu koy abale sàkkoon na ay seere kon ñu gëm lam wax lu mu yàgg-yàgg ñu jàpp ne alala ma suñu nee li baay bi wax wari su koo déglu loolu doom jooju nga xam ne moo dugg ci néegu sëy dëgëral li baay bi wax te it moom ko rafetum xel la mën naa wóor alalam ñu ne ko kon degam nee nga sa baay wax na dëgg ku def sa alal ñetti xaaj benn ba ci la ñuy génne lii sa baay wax waaye ñaari xaaj yi moom sa jëkkër sañ laa aay ne la du ma nangu sa baay laal ci dara dara muy fas yi sulusiya góor goo xam ne ba doom ji sëy da koo waajale waajal ba def ci alal joo xam ne ëpp na alal yi sëy jën ko joxoon gannaaw ba nag mu faatu doom yi taxaw ne lee mu ko yabe woon te ëpp alali sëy ji dañ ko bëgg a boole ci bono bi mu ne bu fekkee loolee kat jot nañ ko yóbbu ca ñépp jigéen ji muy koy sëyi mbaa bàyyi bi sàkkoon ay seere laata muy génn àdduna ne lii ma koy yabe kat maa ko ci yokkal sa bopp mbaa boog da koo jëndoon dénk ko ku mel ne yaayi kii sëyi wala bàjjanam te boole ca wax bu wér ne moom la ko jëndal kon bono ya duñu ca saña wax buñ ci waxee kenn du leen déglu moo ko moom moo ko moom rek day wax àtte jigéen ji su mayee jëkkëram can nga te fekk na jëkkër ja jotugu da wéet ak moom dañ koy teqale mu doon rachida ak mu doon safiha bokkul àtte rachida mooy koo xam ne ku rafet xel la ku rafet ni mu yore alalam la mën naa wéeg boppam ku mel noonu bu mayee jëkkëram can nga ndegam boobu wéet amagut day wax jëkkër ji ne ko da nga koy jox ko lu néew nii gën jaa ñëwee can ndax dañuy bañ sëy boo xam ne dafa amul dara dara ci can ndegam jigéen ji moom mën naa wéeg boppam sañ naa may alalam waaye wéet amagut mu dal lay may can gi jox ko lu néew néew gën jaa néewi can bu fekkoon ne it moom jigéen jooju dafa yëkkati alal jox góor gi ñu koy bëgg a may mbaa dañ ko may ba noppi ne ko nga cane ma ko duñ ko yëgee te wéet amagut dañ koy wax ne ko da nga koy delloo li mu la mayoon te nag yokkal ko ci lu néew néew lu mat gën jaa néewi can su ko mayoon nag lenn ca can nga waaye mayu ko lépp lépp ñu seet lam ko mayut mu war ko koo jox moom ba xam mat na gën jaa ñëw canam déet bu ko matee rek mu baax waaye bu ko manqué faaw ñu wax jëkkër ji ne ko mottali ko ba mat gën jaa ñëwi can jëkkër ji mel nii nag bu wëlbatiku woon fase jigéen jooje te wéet amut moom góor googu kenn du ko joxeeloo dara waaye nag soxna sa lam jotoon a joxe moom da koy jëlaat ndax lam bëggoon ba tax mu joxe alalam amu ko lu may nag ba mu fabee alal may ko ñu ne woon jëkkër ja da nga ko ci yokkal lu néew néew gën jaa néewi can jëkkër ja àggoon na ci yokkal ko lu mat gën jaa néewi can kon bu jëkkër ji fasee noonu te wéet amut jëmm lam joxe woon li gën gaa néew can googee dañ koy xaaj ca digg ba ndegam fase am na mu moom genn wàll ga jigéen ji moom genn wàll ga jigéen bi nga xam ne moom mën naa dem ak boppam suñ ko mayee jëkkër ba jëkkër ji wéet ak moom bu ko neexee may ko alali sëy ja moo xam jotoon na koo jël moo xam jotu ko woon a jël ndegam wéet gi am na rek dal nay moom alal ja te moom mën naa wéeg boppam li alquran waxe wa atu nisaa saduqaatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani am mari an jigéen ji nga xam ne moom mën naa wéeg boppam su mayee jëkkëram jëmmi can nga mbaamu may ko jeneen alal ngir bëgg mu bañ ko wacc te yor ko bu baax nga xam ne kon jigéen ji sañ naa may alalam may na ko moo xam can gaa moo xam leneen la waaye daal bëgg jëkkëram ji dañ ko wacc baa boog bëgg jëkkëram ji yor ko yor bu rafet moo tax mu joxe alalam jooju bu yoon seetee ba dindi sëy ba kon mu sañu jëlaat alalam ndax yoon moo dindi sëy ba ba tey bu fekkoon ne jëkkër daa ko fase ci loo xam ne mëtul ñaari at sax ba tey kon mën naa jëlaat alalam waaye nag bu fekkee ne jëkkër jaa fase ci gannaaw bu yàggee ak moom ba am ñaari at moom gannaaw ñaari at mu door a fase moom kon du sañ a nangu lam joxe woon bu fekkee da ko joxoon alal ne ko nag dama lay jox lii ngir lu fekk yaa ngi ak man doo takk keneen wala jamono yi jaam am mu ne ko doo wutub taara lu fekk maa ngi yow daal di koy jox alal kon bu góor wëlbati ko takk keneen mbaa mu wutub taara bu daal sañ a nanguwaat la mu ko joxoon jigéen ji bu fekkee bañ ko joxee can day lu jar a toppatoo mel nañ ko jox ab jaam ci yooyu jamono mbaa ab jardin mbaa aw nag mbaa leneen bu jàpp ne alal la ma daal ci tàmbalee def yëfam far nag yoon seet sëy ba ne da koy tas kon dañ ne woon ndegam yoon yi tas sëy bi bu fekkee wéet amut can ga daa war a dellu ca jëkkër ja mu ne kon nag dañuy seet lu jigéen ji defoon ca lañ ko joxoon mu defoon ca alali boppam rek ñu delloo ko ko bu joxee jigéen ji can mu tàmbali caa sonn di ca def ay yëfam bi yoon nag yoon tasul sëy ba jëkkër ji ci boppam moo fase te wéet amut nga xam ne kon alali sëy bu ñu ko defee ñaari xaaj benn xaaj ba di dellu ca jëkkër ja kon jigéen ji bu seetee lam jotoon a dépensé ca can ga lam jotoon a fere ñu ko defee ñaari xaaj benn xaaj ba na ko ko jëkkër ji jox day mel ne jënd ja léegi ñoo ko bokk te defoon na ci yëfam lam ci defoon ko def ñaari xaaj benn ba boppam la ko defal ndax moom ba ba tey léegi moom genn wàllu can gi jëkkër ji war koo jox nag genn wàll ga ca des jigéen ji nga xam ne moom bu waree alalam du ko mën a téye da koy yàq ku mel noonu ci yoon du sañ a soppandiku ci alal ci maye mbaa dara kooku nag bu faboon ci alalam jox ak góor ne ko damaa bëgg nga téye lii takk ma ci ma doon sa soxna góor ga daal jël ñu may ko ko mu ne yoon du dindi sëy ba day wax sëy bi baax na waaye day wax jëkkër ja ne ko dañuy seet li mu la joxoon su fekkee mat na ak lu sëy ji nga xam ne moo yell ci moroomum jigéen ji mbaa mu ëpp ko nga joxaat ko lu tol noona su fekkee li mu la joxoon ne la nag nga takk ma ci matut li ñu jox ay moroomam yow da nga koy mottali ba mat li ñu jox ay moroomam nga jox ko ko ndax suñu su ko jox lu yées la ñuy jox ay moroomam te it loolu day fekk nga delloo ko la mu la joxoon ba àggal ndax ku mel nii moom suñu ta maye suñu ta soppandiku ci àllam noonu kon faw da nga koy njëkk delloo la mu la joxoon ba àggal mu génn say loxo nag nga door a def lii ñu wax day wax nag biñ dee joxe can ga ana kan lañ koy teg ci loxoom mu ne bàyyi bi nga xam ne léeg-léeg mu sañ a forcé mbaa koo xam ne bàyyi ko dénk ko jigéen ja ñooñu ñaar moom la ñuy teg allisee ji ci seen loxo bu dee nag jigéen ja day ku mënta wéet boppam ci yor alalam kilifaam rek la ñuy jox alali sëy ja bu fa kilifaam nekkut na àttekat ba seet ku mu doyloo ne ko jëlal ko alali sëyam ji bu ñu fabee alali sëy ja teg ko ci loxol ka nga xam ne moo ko war a nangu bu ne dafa laatu mooy yàlla cee def ab dogalam te ñu gëm rek la mu wax bu fekkee mën naa waat boole ca su boobaa jigéen ja muy jigéen ja sëy mooy ñàkk du saña wax kilifaam ne ko faaw nga fay ma du mën a waxaat jëkkëram ne ko faaw nga joxaat ma jeneen àll li sëy su ko jëkkër ja fase woon sax te fekk wéet amagut ba ñu nekkoon jëkkër ji ba tey moomoom genn wàllu can gi bu fekk nag can ka doon loo xam ne mënees na caa njublam gi lay te ki ñu ko joxoon mënta taxawal ay seere yu seere ne dogalu yàlla ci ñëw kon jëkkër ja di dellu ci soxna si ci boppam mu fay ko genn wàllu can ga su ko amut it mu topp ko ko rek waaye nag ci sartu kere ba ñuy joxe alal li sëy ja jigéen ji ci boppam amoon na man-manu fay lu toll noonee nga xam ne booba jekk woon na boppam ba fay lu toll noona yomboon na ko ca booba bu fekkoon ne jigéen ji parce que ñu joxe can gi boobu fekk ko woon amee man-manu boppam bu ñu waree fay ni genn wàllu can gi itam desu ko ko fayloo léegi bu ëllëg bu ëllëgee itam bu ko mënee kenn du ko ko fayloo ka ñu ne woon moom la ñuy teg alal li sëy ji ci loxoom lay tax nag jaanam wàcc nga xam ne lañ tegoon ci loxoom def na ca lam ci war a def mooy mu jënd ci yére yoo xam ne da koo jëndal jigéen ji te sàkk ay seere yu si nit ñi nii kat bi mu ko jëndee jox na ko jigéen ji seere yi jàkkaarloog ba mu koy joxe ganna ngoog ñaareel ba mu jënd yére ya yóbbu ko ba ca néegub sëy ba néegub jigéen ja woo ay seere ñi seere ne mi ngi nii andi na ko ba ci néegub jigéen ji bu fekkoon booba jigéen ji rek fa it di ca dara moom andi na jëmmi yére yi ba ca néeg ba mu sàkk ay seere ñëw ba tiim ko gis ko ñetteel ba mooy mu wut ko sëf ko nag jëmale ko ca fam jëm muy ca néeg jigéen ja sàkk ay seere yoo xam ne da leen ne seere leen ne mi ngi nii kat wut naa ko sëf naa ko nii mu nga jëm ca fa mu war a jëm doonte seere yi mënuñoo dogu ne dañ ko gisee noonee dem na ba àgg ca néegu sëy ba itam du ko tee doy bu jëkkër ja ne woon loolee ak si wutit du tax ñu déglu ko nga xam ne ñoom nee nañu kilifa gi wërta yëkkati alali sëy ja bu dee xaalis mbaa wurus di ko teg ci loxol jigéen ja ndegam jigéen ji àggul ci mën a yore alali boppam xam ne faaw daa aajowoo mu am ku koy toppatoo kilifa gi moo war a téye alali sëy ja wurus mbaa xaalis def ca la ca yell ba jigéen ja jariñu ja loolu nag mooy jigéen ji nga xam ne àggul ci mën a yore alali boppam mu teg ci nag bu dee jigéen joo xam ne mën naa wéeg boppam muy wa illaa ndem déet fal mar atu kon jigéen ja fekkee jigéen dañuy jox can nga bàyyam nekku fa ku ko bàyyam dénkoon nekku fa amut ko àttkat bi taxawal kon jigéen ji ci boppam dagam ko mën a wéeg boppam la rafet na nu muy soppandikoo ci alal moo jëlal canam googee boppam moo koy jëlal boppam duñu bàyyi geneen kilifa moo xam moo ko maye wala déet ni ki càmmiñam mbaa bàyyam mu ndaw duñu bàyyi kookee di ko jël moom ci boppam moo koy jëlal boppam jënd jigéen ja bu fekkee ne mën naa wéeg boppam mën naa yore alal yi boppam jëkkër ja buy jox can nga na ko teg ci loxoom te bañ koo teg ci loxol ka nga xam ne mooy maye rek li may moo wax nañ ma ko joxal diw moom jigéen ci bopp may nañ ma ko joxal diw moo xam kay maye moo xam keneen la loola baax na waaye bu dul loolu ndegam moom jigéen ji mën a wéeg boppam la moom ci boppam la ñuy jox al li sëy ja ndegam moom ku ñu doy loola na muy soppandikoo ci alal bu ne lañ ma joxoon kat dafa sànku daal laatu te man sagganuma ci yàllaa ko dogal ñu gëm ni wax na dëgg bu nangoo waat boole ca su boobaa kenn du ko forcé ne faaw nga jël sa alali bopp mbaa faaw nga def ay pexe ba wut ay yére ak waajtaay yoo demee sa néegub sëy wax nañ la jëkkër ji bu dee joxe can gi kam ko war a jox bu fekkoon ne nag jëkkër ja daa jox can nga keneen ku bokkut ñi nga dégg ba noppi nag can nga laatu kon jigéen ji bu ko neexee toppi kooke nga xam ne moom lañ ko jox bu ko neexee itam toppi jëkkër ja ndax jëkkër ji moo joxe can nga te jox ko koo xam ne waru ko woon a jox ku ko neex ci ñoom ñaar rek mu toppi ko ne ko fay ma su jigéen ji toppee kookee nga xam ne moo ko jël te waru ko woon a jël koo ko jox ko kon jëkkër ja jaanam wàcc na bu ñëwee nag jëkkër ji ne ko faaw nga jox ma ba jëkkër ji joxaat ko tutal ne can nga kon jëkkër ji na toppi kookee nga xam ne moo jële woon can nga ci ay loxoom na dellu ca kooka kooko fay ko jigéen ji war a sëyi bu ñu ko wutalee ay yére ba yóbbu rek def ca moom ci boppam moo war a fay lu koy yóbbu lu may nag dañoo sartoon ne jëkkër ji mooy wut lu ko yóbbu mbaa lay aada foofa jëkkër ji mooy wut lu ko yóbbu bu sart amee mbaa aada ñu topp loola waaye bu dul loolu moom moo war a fexe ba yére dem ci néegu sëy ba ki ñu ne yow lañ war teg alali sëy ji ci sa loxo bu waxee ci làmmiñam ne alali sëy ji kat jox nañu ko baa téye ko gannaaw ba nag mu ne damaa xamoon ne faaw jëkkër ji moom am na ko tegu mandu la faaw danaa ci jot moo tax ma ne woon jot naa ci waaye booba jotuma ci woon mbaa mu ne dama ko doon sagal rek nga xam naa ne booba yombu ko te bëgguma saagi ab sagam jëkkër ji weddi ko ne joxoon naa ko loolu mu ne woon jot na ci jox naa ko ba mu jot ci wax yi jëkkër ji la ñuy gëm ne joxe na ko ndax ndegam kee moom mu kàllaf la ànd ak sagoom kenn forsiwu ko mu jekki-jekki wax ne jox nañu ma alali sëy ji baa téye ko nay jàpp rek jox nañ ko ko su fekkee nag boobaag léegi yàggut toll ci fukki fan rek mbaa fukki fan ak juróom moom miñ joxoon can gi wax lii ne maa ne woon jot naa ci waaye boobu jotuma ci woon jëkkër ji ne ko joxoon naa la ko booba danga déggul nii rek la toll mën naa wax jëkkër ji ne ko waatal ne joxoon nga ma ko bu jëkkër ji waatee la mu wax ba tey atte bi noonu lay demee ñu jàpp ne joxe na ko bu jëkkër ja ragalee waat loolu mu wax ne joxe na ko nag te fekk kii daa dogo woon ci ne ko daane woon rek jox nga ma ko waaye joxoo ma ko woon ñu ne ko kon yow da ngay waat nag dëgër li nga ne joxu la ko woon soo waatee rek ci daal di wax jëkkër ji kon mu joxe can gi foofu dañ ci teqale nag daawal ittiham ak daawat tahqiq daawal ittiham mooy jiiñe goo xam ne kay jiiñe bëggu ci daa wax rek ñaaw gum ñaaw njort waaye bëggu ci la muy jiiñe kooku moom kañuy jiiñ bu ragalee waat niin du aajowoo ñu koy waatloo moom mi ko jiiñoon waaye nag daawat tahqiq mooy dogu ne ko nangam yoo mbaa nangam defoo ko woon te dogu ca moom bu ko ragalee waat dañuy delloo ngiñ li moom yi nga xam ne moo jiintaate mu waat nag la mu waxoon door a sax kilifa bi nga xam ne sañoon naa forcé jigéen ji mu sëyi te jot nañ ko leral bu jëkkër ja fasee soxna sa te wéet amut nga xam ne kon jëkkër ja war naa joxe genn wàllu can moom rek moo mën a baal jëkkër ja genn wàllu can nga ne ko jërul nga di ko joxe waaye nag ba'da talaaxi la wax gannaaw bu jëkkër ja fasee ba noppi ba war a joxe genn wàllu can ga bu jëkkër ja faseegut moom kilifa gi du ko mën a wax ne ko naa la baal genn wàllu can gi boo fasee itam du ma sopp dara faaw day bàyyi bam fase ba àggal lu may nag dañ caa gis maslaa mel ne jàpp na ne bu ne ko mën ngaa fase du ma la topp genn wàllu can loolu mën naa tax bu fase itam balaa idda jaay jeex mu wëlbatiku ñëw dellu si fayli ko mbaa mu gis ne moom day ku ñàkk lool bëgg naa fase sax waaye bu fase itam fu muy jaar ba joxe genn wàllu can moo koy jaaxal te kilifa gi xam ne ne moom sëy bii du baax du baax lu koy jeexal léegi rek moo ci gën kon mën na ko ne faseel rek du ma la topp genn wàllu can du ñu bañ daal mu dal koy jéggal genn wàllu can nga ba faseegul sax ndegam da ko teg ci kaw maslaa teg ko ci lu wér loo xam ne lu mat a seet la